والشيخ أحمد تيجان ما يورد تريويا والشيخ أحمد تيجان ما يورد تريويا الشيخ خطب الوجود الذي أبدى لا يتوه ربي وآدم بين الله والتيم وآدم بين الماء والدين شيخ تيجان قطب الوجود لذي عبد لا يتوب ربي وآدم بين الماء والدين قبل وجود الذي أبدا بلا ربي وآدم شيخ تيجان بيت الولايات مصباح الظلام ومفتاح الكنوز وقاق الكل للحين قدم الوجود الذي أبدا ولاية جو ربي وآدم بين الله والدين خليفة ويوه والمحط رجال وافدين أولي الحوائج من أفق ومن خطب الوجود الذي أبدى ولاية يدعو ربي وآدم بين الماء والنيل خلفان بيت الولايات مصباح الظلام ومفتاح الكنوز وختم الكل للحين خدم الوجد الذي أبدا إلى يوم شيخ تيجان شمس المعارف تاج العارفين نك يهوي الفضائل نجل تاح ياسين لا يهدون بما آدم بين الخليفة الخير والموتى من مدر سر سريعة سلطان تنشر خطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم زوجا رئيس أهل المنى والبر فراقه شيخ المشايخ في الإسلام خطب الوجود الذي أدى Cheikh Tidiane Abul Abbas Abu Xaydillazi آيات كل عقل زاكي قطب الوجود الذي لقد شيخ نابر التجار ربي وآدم بين المالك والدين لفاي وي قطب الوجود moo cheikh me kañ laa jot kat mi yaaga booba aadamu baynal ma Tijaan xutbul wujud moo cheikh me kañ la jot كبيادا بابا آدم بين الماء والسمين خطب الوجود ما يبور ب 18 سفر الله يلا دوغال شي شيخ احمد التجاني آدم بين الماء والسمين شيخ التجان والخوص والبرزق مكتوم عليه أقطاب الإله بلا ريب وتنزيل قطب الوجود الذي أبدى بلا ولايته ربي وآدم بين الماء والتين وتيجان شيقي تيجان الذي شاعت طريقته بين البرايات برهن المرازي خذ الوجود الذي أبدأ ولايته ربي وآدم بين المال والدين طريقة بطريقة الحق قد تسري شرائره عين المغرب في حفظ وتحصيل خلق الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والجيل ختيجا عازت بمجموع أسرار العجائب والغرائب الغرب

لخطاك قد أفلح المؤمنون من ظلم إلى الله في يسر وتمكين ولاية ربي وآدم بين الماء والكين شقتي جل فالحق يعلو على فمنكر الحق في حسن ونزيل وكل وجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والكيل قتيجا فالحق يعلو ولا يعلى عليه نعم فمنكر الحق في حسران والدين قطب الوجود الذي ربي وآدم بين المال والدين خديجا فلا ترى أحدا ينواكر شيخ أبدا lutul kanam يا داي رفت sañse wa فلا ترى أحدا من واكر شيخ أبدا لو تلك نم يدي رنجن وتزيني فلا ترى أحدا ñun waa kër Cheikh abadan lu dul kaanam yaa day leen sañse ba tas yi xutijaan alhamdulillahi lama qasana karama ajil ma asir fi xafzin wa mahfurin xutbul wujud allazi أحتى ولايته ربي وأنا فتاك الحمد لله لما قصد كرما هزي المآسير في سر سقطي ألف من يتيم شاغي قاتية فهي المنية في حذاك اخوتي الفم ياتي ساقي فقط في طريقتي فهي المانية في ذاك اخوتي جل تقبل الله ربنا دعوتنا مما نريد به ويوي كيف جاي ياسين ويوي كيف جاي ياسين loxo ca kaw bi jaay yaasin Seexu Tijaan bi jaay yaasin way wi kay buuleel ko nës nësër bu ko jàngit ba ca kanam nga ñëw innal xasidata hadi min muridin abi faydil ilaah mam bay seetaaru way wi kay buulin kunus bu ko jàngit ba ca kaanam nga ñëw innal xaasi xaasi min muridi abi faydil ilaah bay seetaaru aki sallal ilaahu ala mahmudi sayyidina wal ali wa sabi شفاء ما يديني صلى الإله على محمود سيدنا والآل وصحبه شفاء ما يديني فتح ذات فتح يدي سيدي أحمد التجاني الشريف wallaahi tariqa bi du bëgg bokk ci moo tax nga ciy bokk jagle yàlla la kon nag ñu sant yàlla bi ñu ci yàlla boole. kon ñu ngi ñaan yàlla tabaaraku wa taala yalla na yàlla beesalal yërmande ci suñu góoru yàlla boobu ah di ñaanal fa tabaarakallaahu ki may wax toujours ñun bu ñu xamee yonent ba ñu mos ko mooma bu ñu xamee cheikh ba ñu mos ci cheikh moma lolé ma lay ko kan moy mooy al mujahidul akbar moolana cheikh al alhaaji umar al futi radhiyallahu anhu xokkam seedatan seedatan damay bëri nekk waaye ka tax yonent bi jege ñu muy Mawlana Cheikh El Hadj Omar al Fouti baynana wa bayna makkatal mukarrama muddatan tawila waaye gis nga say ñaari loxo bu la neexee ñu jege la waaye boo ne bu la neexee tamit ñu sori yoo tamit ni mu sori yoo noonu la màkka meloon ci ñun waaye Cheikh El Hadj Umarul Fuuti yu indil ñu màkk ma indil ñu rasulillahi muy madinatul munawwar boo mel ne sa ñaar loxo yi nga boole rawda sayyidi Cheikh radiyallahu taala anhu sori lool Sénégal gii sori ñu lool waaye muy jegeel ñu ko ba mu mel ni sa ñaari loxo yii nii kon kooku bu ñu xamee sayyidi Cheikh مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي bu ñu xamee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي yàlla ñu ko yàlla fayal di ñaanal suñu sëriñ di suñu sëriñu sëriñ di Cheikh Mouhamadul Bachir yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla dolli wéram yal na yàlla dolli jàmmam yal na yàlla dolli suturaam ak képp ku wax amee tamit yal na la yàlla defal ngëneel yu mel nii di nuyu di ziar di dox cër lool. borom xadara bi di Ceerno Hamidou Ousmane moom it ñu koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam ndax jotaay bu mel nii buñ ko amee bañ ci sant yàlla lu ji ñàkk mooy ñàkk wolof day wax nag bu lépp lekkee alom na ko gërëmee coy moom mi moom mooy coy bi lu ñu am ci guddi tey ci ay anwaar ci ay maarifa ci ay fuyuudaat ci ay tajalliyaat taxalliyaat ak taxalliyaat nañ ko sante yàlla waaye carxan bi du mooy njàng moom it yàlla ko yàlla fay mboolem dërëm bi mu génnee ngir jullit yi bég ci journée tey bi yàlla na ko yàlla fulandil yàlla na ko yàlla fulandil ko yàlla fulandil ba mu soob yàlla mu doyal waaye tamit yàlla yàlla defal loolu njabootam nga ka ci jiitu mooy Ceerno Muhammadu ba fi nga xam ne moo gën a tuuti ñi Ceerno Madaan bi nekk ci biir kër defal ko góor ñi defal ko jigéen ñi waaye tamit defal ko mboolem soppe Ceerno Hamidou fa tabaarakallaahu dañuy ubbi rek jox kilifa yi ñu defal ñu waxtaan tey moom ku yàkkam di ba ñibbi ah gisuma ku la koy nettali de nga xale yi di gisuma la mbaaw xale yi loolu lañ doon wax gisuma la mbaaw loolu moom bu nu yàkkam waaw ah, ak Pape xam naa ne moom li mu bind Thierno Mouhamadul Muxtaar mi tin lu mu préparé Bani Hachim mi moom tamit lu mu préparé Thierno mi nekk ci ruq ba su génnee ah ak alhamdulilah rabbil alamin ak imam Moussa Gueye incha allahu taala danañu am li ñu li ñu mën a dundee fekk balaa déwén incha allahu taala Thierno nee na mu ngi dalal ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di dalal soppi yi. kenn ku ne foo mën a bàyyeekoo ceero mu lay wax ne ahlan wa sahlan marhaban góor ak jigéen nag mag ak ndaw ku ma ku jàppale gis na la na gis na la ku jàppale ceerno gisu la jàpp ceerno nee na jàppal gis ndax lu mel ni ñun ñooy mën a comprendre suñu bopp waaye ceerno kuy koo xam ne yàlla wërsëgal na nga jéego ñëw ba fii yëgal ni ceerno gis na la yëgal ni ceerno gis na la te li xaj ba Baxtaar di wax ni insha allahu taala fii ku fi teg tànkam boo gisee Thierno boo ñaanee sa aaju day faju boo gisul Thierno boo ñaanee sa aaju day faju ndax du ci Thierno waaye ku moom bërëb yi di Cheikh Alxaaji Umar Fuuti yi fi ñu mënta mu ngi ànd ak ñun nee na mu ngi dalal ñëpp mu ngi dalal ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw jotaay bi nag li ñu ko bëgg tàmbale ak ñi nga xam ne ñoom la ko jagleel ci ci njëkk mooy góor gi Elimaan Ahmadou Diallo bu Dalifort moom la tuddee guddi gi. moom la tuddee bëccëg bi di ko fàttaliku wóolleem xaritam àndandoom ceer nee na amul fu ñu àndul fu nit bi war a ànd ak mbokkam ceer nee na ànd nañ guddi ak bëccëg ceer nee na mosoo muy jooytu mbaa muy tawatlu ne sonn naa mbaa xiif naa mbaa tàng na ceer nee na ko gis ci moom yàlla yàlla beesal yërmande ci moom ñu yéene waale ci soxna Aïssatou dem ba baax bu wookaam ñu gën kaa xam ci soxna Athie Ba bu fa tabaarakallaahu mbooloo mbooloo biraan kii moo njëkk sosal Thierno daayira Thierno sànq mu ngi koy fàttali vers quatre-vingt-six quatre-vingt-cinq moo njëkk sa sosal Thierno daayira fii ci Dakar moom it fa tabaarakallaahu bàyyi woon benn yoon Thierno nee nañ ko yéene fa tabaarakallaahu ci ñaan bi ki leen ñetteel mooy Thierno Yaxya Taal mi fi génn àdduna barki dem mooy jaay fële ca Mali ñu denc ko ca Kunakaari Thierno nee na kooku way juróom la sëriñam la xaritam la kooku moo ko njëkk bindal baax kon ñett ñii Thierno nee na nañu tàmbalee ñaan ci jotaay bi ñu ñaanal leen insha allahu taala bu ñu noppee ca ñaan ba ñu soog ca teg nag programme bi nga xam ne moom lañ ciy teg waaye li ma waxoon sànq daal bu kenn yàqam ci ba dem imaam Ibrahima la ñu ngi lay nuyu yow mi nga xam ne yow yaay imaamu Zawiya ak mboolem say naayib imaam Samba Ndiaye xaaj Abdallah yu bëri fa tabarakallahu ak suñu woyu ñu tedd yi fi nekk ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ay wóor la ñu su ko defee ñaan bi ceerno joxe woon moo di ñu ñëpp bokk def astaghfirullah téeméeri yoon ñu jéggalee ko suñuy bàkkaar wa illaa bu ñu amul ay bàkkaar ñu dawal ko suñu diggante suñu boroom ndax xat-xat mi nekk ci réew mi feebar bi nekk ci réew mi jafe-jafe gi nekk ci réew soxla yu bëri ñu jéggaloo ko suñu borom bi subhaanahu wa taala ngir lu ñu yootu ci guddi gi tey yàlla yombalal ñu ko kon ñu bokk ñun ñëpp góor ak jigéen mu ngi def astaghfirullah astaghfirullah téeméer bu ñu nappee insha allahu taala ñu dugg ci leneen bismillah kii ubbi jotaay gi nag mooy sayidi ibrahima so di bani hashim fa tabarakallahu di wëllëre ci ceerno ceerno nee na moom mii moo ko war a jox ay sagar waaye ba léegi nag sagar yi ñëwagul comme que ñëwagul moom joxagul ceerno dara ceerno nee na moom saa yu fi ñëwee moom nañ ko teral ñu jox ko kàddu gi bu dee dafay jàng alquran fa lillahi alhamdu bu dee dafay fàttali jullit yi fa xam fu ko neex fu mu war a duggee bégal ñu koy wax ni fal yatafaddal mo sayyidi ibrahima so kono ceerno ibrahima microphone fi amamika aɗa yerlo aɗa yaafo aɗa ɗacca haqqe tanum nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko an woni joom jonde nde ko an woni gardiɗo jonde nde ko an tarni jonde nde ko an yonni jonde nde ko an sinki jonde nde minen fof komin ɗoftoɓe komin duusoɓe يا إلهي وزيا أبدا عنا محمدا مختار في بيت رسول الله الله من في القران انزله يا الهي أبدا عنا محمدنا مختارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها قمرا وسراجا منيرا الحمد لله الذي جعل قلوب عباده العبرار كنوز العسرار وجعل جنة النعيم مقر العبرار والجحيم مسكن الفجار وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي أرسل رحمة للعالمين فكان رسول الله وخاتم النبيين نطق بأموم رسالته إلى جميع الناس لسان كتاب مبين واستوت ذاته الجامعة بهذافر خلقه العظيم ليعلم كل أناس مسربهم في عذبه المعين سبحان الحكيم الذي رمز بالشاهد على الغائب تلطفا في اقامه البراهين وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا الى ربنا شيخ النسداس الظاهر المسداس الماهر ميزان الحقائق كشاف الدقائق فتاه الرتائق أبي العباس أحمد بن محمد الشريف ورضي الله عن شيخنا الأزهر والكبريت الأحمر صاحب الجهاد الأكبر الهاج عمر بن سعيد فوتي توروي حلواري قدوي اللهم ارضى عنا وعنه رضا لا سخط بعده عبد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الصادة والقادة ɓaawa yettude allah e juulde e nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam juuraade ceerno men ahmadou tijani radiallahu taala an e heddaade e yamiroode ceerno men alhaaji oumar bun saïd mi salminii denndaangal juulɓe ɓe pop mi ñaagi mama ɓe du'aw mi ñaagi mama ɓe yaafuya miɗe ñaagi yo ɓe njaɓanam ngantu kadi sibu so wonaa ngal kaalami ɗo ngal alaangal kattanmi miɗe yetta allah miɗe yettana ɓe allah miɗe yettira allah jonde nde e sababu jonde nde mi jaari julɓe ɓe pop tawaɓe e nder jamma o laabi ceertuɗi ɗi e gure ceertuɗe ɗe e nokkuji ceertuɗi ɗi kamɓe kala miɗa jaaraɓe miɗa juuroɓe miɗa yettira allah garal maɓɓe miɗa yettanaɓe allah miɗa ñaagoɓe yaafuya miɗa ñaagoɓe du'a o rokkede miɗo konngol e jamma khatmi cheikhna ahmada tijani radiallahu taala an ana alam anni lastu forsan hadihi lmaydana miɗa laaɓa pay mi rokkiraka konngol jamma hatmiyi wonde komi kawali yanke ndimangu ngal dimgiral sinno wonano yamirore heccineedi yamirore heccineedi mi haalata ɗo kono noon yamiroore hecciniidi poɗɗo wiidema waɗ mbaɗa so a oppiri wat makko o ndeedi tan needi ma ndi wontata ko bondiniidi ɗum waɗi yamiroore hecciniidi kono jamma khatmiyi o mi oppiri jinnaɓam seerem ɓam khalifaɓam tawdaɓe am e jamma o ɓe keetta baŋŋe mi heetta baŋnge nde wonnoo ndiwri waɗi ko bibje ɗiɗi ɗiɗi ɗe fof so ndenndaani abadat ndiwri ndi ndi diwata mi woppiraaɓe jamma hatmiya o e teddungal ngal ɓe ndokkimi yo mi tawe e konngol jamma o mi haala seeɗa e ko nganndumi e ndeer geɗal jamma o holi geɗal ngal kaalanmi geɗal jinnaaɗam ceernam khalifam mawnam ceerno haamidou atumaane dembo kar sinno fof wona jamma o weli wadde ko gooɓe jiile mi accire jamma o tan mi timmina ɗum gootum sibu ceerno haamidu ko ɓii gorgolam min komi ɓii kaw makko kono noon ko kaalanmi e makko ko allah kadi ine anndi mi haaldata batte ko ɓii gorgolam walla komi ɓii kaw makko kaldammi ko allah abadat neɗɗo allah rokkata ɗum masuliya tawi dañani to fawi abadat allah waɗatamo responsibility tawi ala ɗo fawi ceerno hamidou atumani allah ene rokkimo responsable mo allah wiyata alkhayru khairu gonɗo e qur'ana o holi woni holi on in yalami llahu fi qulubikum khairan yuutikum hayro on hayru woni hoɗum sibuɓe allah haalata ɗon ɓe ko usra ko ɓe dahaaɓe anndi ɓen kam wona haala jawdi kaalante holi on jammo allah haalata e maɓɓe so tawi mbiɗa anndi jam e mooɗon mami rukku on jam illa man ata llaha bi qalbin salim hoko wonata dalilu neɗɗo ene jogii qalbin salim wahfid janahaka liman ittabaaka min almuminin haa mbaawa yankinande wibjo maa e juulɓe rewɓe e maaɗe ɓee sibu geɗal ngal allah rokki ceerno haamidu ngal so tawno o fattuno yimɓe ɓee to woni to haa mbaawa tawoydemo toon o yaada e muɗumen woodata ɓe o yaadi kono ko heewi o yaadata e muɗumen holno watta kanko allah ene rokkimo sartasi o tello e gaɗal ngal allah rokkimo ngal o tawa miskineɓe allah nufluɓe ɓe o yawa yaadude e muɗumen mbele ko haa naftamo kankone ala haa nafa ɓeen sibu nelaɗo allah ñande ferata makka ene yaha madinatul munawwarati nde yaade seydina aboubacry siddiqin radiallahu taala anhu nde sinno wona nelaɗo allah jippi e martaba mum yaadata e aboubacry siddiqi nelaaɗo allah telli haa fotee aboubacry siddiqui yaade aboubacry siddiqui mbele ma maleykaaji njewtata ene faala yewtere neɗɗo ñande nelaaɗo allah yaadata e seydina aboubacry siddiqui nde nden maleykaaji njewtatamo hoko yaadire e aboubacry siddiqui mbele aboubacry siddiqui heɓa faayide walla heɓa fulla walla heɓa jangtowal moƴƴal woni hollum id huma fil geyri id yaqulu li sahibihi la tahdan inna allaha maana lawla musahabatuhu bi rasulillahi ma dukira sinno nde nelaɗo allah jaɓani tellade yaade aboubacry siddigui abadat nden fulla aboubacry siddigui aratano e alquran no heɓiri ɗum nelaɗo allah telli yaade makko allah ene rokki ngal gueɗal ceerno yero omo wawi faggitorade ɗo neɗɗo nufluɗo o ɓamta ɗum ha yaada e makko kono sinno o fattatno yimɓe ɓee to woni to ma dañ waawɓe tawoyde mo toon kono majorité ko ɓuri heewde ko fof yaadatano e makko nde allah rokkimo oɗo masuliya noon amin jettiranamo ɗum allah tawdete ceerno yero e galle ɗum ɗon ko fulla minen jiidi en ɗam jiidi ƴiiƴam tawdede makko ƴiiƴam ɗum ɗon ko faa'ida tawdeede e ceerno yero e ɗemngal e gootal ɗum ɗon ko faa'ida tawdeede e ceerno yero e ɗariiga gooto e maslaku gooto ɗum ɗon ko faa'ida tawdeede e ceerno yero e diine gooto ko nguur tonngideede e ceerno yero e nguurndam woni kaydul hayaati tawndiron ɗum ɗon ko geɗa miɗen jettiranamo ɗum allah ayi ashabul kahfi maa ashabu lkahfi waarraqim ashabu lkahfi waarraqim ñande perata nde ɓe njaadi ko e rawaandu mbele ko rawaandu ndu tawyiɓe to martaba maɓɓe to walla kamɓe telliɓe mbaawi yaadude e rawaandu kamɓe telli kamɓe tellini ko'e maɓɓe haɓe mbaawi yaadude e rawaandu nde yaadude e maɓɓe e rawaandu ndu fof allah jantii rawaandu ndu jantii jaadigal maɓɓe e rawaandu ndu jantii wondugol maɓɓe e rawaandu ndu haa allah wii wa kalbuhum basitun ziraaihi bilwasid ay rawaandu ndu ɓe njaadi ndu so tawii a arii ɗo dingiral ɗo fof tawa rawaandu ndu ene fortii ɗoon wa tahsibuhum aiqaad wa hum rokud cikka ko ɓe finɓe taw ko ɓe ɗaniɓe nde ashabul kaafi en ɓe jaadata e rawanu ndu nde fof kamɓe telliɓe mbawi yaadude e rawanu ndu e ɓawde noon rawandu maldama yaadude e yimɓe moƴƴuɓe holko haɗata holko haɗata joom haqqille tongade e moƴƴo walla yidde moƴƴo walla jokkaade e moƴƴo walla wondinaade moƴƴo tawi woni hay rawaandu e malkiseede ene waawi maldeede haa jangtee alqur'ana batte tan wondiniima e moƴƴo hoko haɗata joom haqqille kisɗo waawde wondinaade moƴƴo wa kalbul fada bilgidimai gidima bi jannatin wa ridwanin hibati لاتباع الكرام الهاربين بدقيان سو قصدا للنجاة هم الفتيان سارونا وكهف ألا نجب الإتاق لماليات توي رواند فوف ابوند صفة اجازده allah jangtima geɗal mum e alqur'ana hoko waɗi ɗum rawanu ndu wonduno ko e moƴƴuɓe wadde noon wondude e moƴƴo ɗum ɗon ko geɗal ngal allah rokkata neɗɗo miɗen jettirana allah ceerno hamidou e ngal ɗo geɗal kadi e ngal allah waɗani ceerno hamidou ceerno hamidou ko moƴƴo ceerno hamidou ko dimo ceerno hamidou ene hande noddude ceerno hamidou ene hande notede notade ceerno hamidou ko notade noddandu allah ay kala ɗo allah wi wa ulil amri minkum aɗa andi kay wonmo lombi hakkude makko e tagore nde ɗum noon miɗen jetta allah no feewi miɗen jettira allah juulɓe ɓe miɗen jettira allah ceerno hamidou min kaaɗa ɗo jamma o ene heewi fodɓe haalde e waawɓe haalde e haanduɓe e haaldude min ngara heen haa ɗo min daaja allahuma salli ala seydina mouhammadin wa sallim Thank you.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين ورد الله الخالد عن شيخ الشيوخ برزق البرازيق تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد الصالم التجاني وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجه وسلك طريقه القويم إلى يوم الدين mbokki جلدي yi ginnaaw bi nu sant yàlla suñu boroom cant gu جمع jëmmam julli ci sangu-sang yi muy sayidil wujudi wa alami shuhudi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa ñaan yàlla suñu boroom yal na yàlla dollee ràng ay garaat ak i maqaama ki nga xam ni moo dox suñu digganteeg yonent bi muy mawlaana a sayidi cheikh ahmed al tijani sharif radiallahu taala anhu ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd bu sell muy jàmm yàlla ak barkeem ak yërmandeem yàlla na ko yàlla wàccee ci jataay bi yàlla na ko yàlla wàccee ci jataay yi mel nii yépp ba jàmm jooju yàlla na wër bi yépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ngi jiital ci nuyoo yi ak ziyaare yi cerno di ko nuyu di ko ziyaar di ko wàccee wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla mu may ko fan wu gudd ak wér gi yaram may nu ko may ko jullit ñépp ci barki yonente bi salaa alayhi wa sallam ñu ngi nuyu tamit sangu yu tedd yi nekk ci néegu yàlla bi yépp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi li yàlla waxoon def ngeen ko yàlla waxoon ci alquran ni yéen jullit ñi suñ ngeen woowee woote boo xam ne mi ngi jëm ci yàlla ak yonente am dem leen ngeen wuy ci loolu nag ngeen wuy si tey ci jataay bu tedd bi ci guddi gu tedd gi tamit di guddi go xam ni yàlla ci mbaaxam yàlla ci mbaaxam moo ko jagleel kenn ci jaamam yi muy sayidi cheikh ahmed tijani sharif radiallahu taala anhu muy laylatul katmiya dafa am ñaari maqaama Cerno Baro mi ngi koy jul junju léegi muy maqaama xatmiyatu ak maqaama katmiyatu muy ñaari garaat yoo xam ni Cheikhu Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu moo ko ràngoo ci wali yi yépp loolu nag inaayatullaahi la maanaam jagle yàlla yu ko yàlla jagleel la maqaama xatmiya mooy maqaama bi nga xam ni fi cheikh àgg ci wilaayatu benn wëli yu faa àgg ci ñi ko jiitu woon benn wëli yu faa àgg ci ñi mu jamonoonteel benn wëli dootu fa àgg gannaawam loolu mooy alxatmi ni maamam yonent bi nekkee xaatimul ambiyaa'i wal mursaliina nga koy jàng ci alquran ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولا رسول الله وخاتم النبيين بودي خاتم مو كاستي أفير بي بودي, بودي خاتم مو tampon بي yàlla teg ci gannaaw yonent yi beneen yonent dootul am ci yonent seen xaatimu nubuwa fii la daan nekk ci seen gannaaw ci seen mbaggu ndeyjoor fii yàlla bi seyduna muhammad ñëwee muy wane ni yonent dootul am yonent bi mu tafal ko ko ci mbaggu càmmooñam ni ko yaa tëj affaire bi cheikh alxaaji malik nee na man ca diggante mbaggu ndeyjoor ba ak mbaggu càmmooñ ba fare ci suufu mbaggu càmmooñ ba alaaji malik nee ay karaw yu ñuul ñoo ko wër matul ñaar fukk am ben khalima mam yàlla alaaji malik neena tampon bi mi ngi tolna rek nga ñëpp so loxo tek ko ci suuf teggi wala petax am petaxum póol nenam nee non la tampon bi mel alaaji malik ni kuko mësi gis texe nga fa yàlla naziri muy khatimun nabiyina wa imamul mursalin yàlla wane ni ginnaaw yonent bi benn yonent dotul am bi Cheikh Tidiane ñewé tamit mu def ko khatimul lawliyaay motax sama rak mi ngui koy junj léegi baro yonent bi dafa ni kuntu nabiyyan aarifan bin nubuwati wa adam bayna al ma'i wa tiini man bamay nek yonent xamni man may khatimul anbiya'i والمرسلين بابا آدم ما نشندهم ماك بنام بكين بندقوك بابا يالله بندقول ترى كلام يالله وخي يو يونين تبي يو محمد ابن عبد الله يعنيك خاتم الأنبياء والمرسلين تلوم بندي يتم يايتخ تقل يوم القيام كم تجقل يتم يايتخ شفاعة العزمى بني يدق إلا يوم القيام دو تجي تلوخو كن تلوخو سيدنا محمد ليتك bu yomal khiyamé jami bu nu dekkee ñëppay tiit ñëpp hatta al anbiya wal mursaluna kenn ku nekk fi nga tok yaangi ti kenn ku nekk ben wax ngay wax moy nafsi nafsi sama bop la tal sama bop la tal yàlla ni ahakay kay ngeen di wax yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughnihi yàlla ni keroog bis boobu kenn ku nekk sa yi fi bopp dana la doy kenn du tal kenn yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yow ma izin lillah moo tax gis nga sëriñ bu lay ramm fii la lay rammoo day mel ni Cheikh Tidiane nan la lay rammoo fii mooy dalay teg ci yoonu siraatal mustaqim ngay jaamu yàlla sa boroom jub sopp yonent bi nekk ci yoonu njub bu ëllëgee yomal xiyam bala mu lay ramu ci jëf ramu la nga dem aljanna looluy ramu kenn ku nekk naan nafsi nafsi gaay ni ne eh dem leen ngeen seeti Ibrahima parce que yàlla nee na woon ci alquran wa taqasallahu Ibrahima xalila Ibrahima ay suma xarit ñu ñëw ni Ibrahima demal mu ni ah ñemewuma taxaw foofu tey sama bopp dal na doy na ma ñun dem leen ci Moussa Kalimullah moo daan wax ak yàlla ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa mu ni taluma leen ñu dem ci Isa ñi mooy kilima tëgoo dem leen ci moom ñu dem ci yonent yàlla Isa mu ni taluma leen ñuy wër ci yonent yi yonent bu ñu ñëw mu ni taluma leen ba yàgg Ibrahima woowaat leen ñu ñëw bi ñu ñëwee mun leen taluma leen la ma leen waxoon laa leen di wax waaye xam naa koo xam ni su ngeen demee ci moom coow li sotti ñu ni ko kan mu ni mooy Sayyiduna Muhammad baal ma rek balaa Thierno ñëw man dimbale ma rek sëriñ dimbale ma rek dimbale ma rek balaa Thierno baal ma balaa Thierno ñëw baal ma man bu Thierno ñëwee rek sama waxtaan day yàqu moo tax ma bëgg profité mu len xamna ko xamne bu ngeen deme ci mom ciowli li ñu ne ko moy kan mu moy sayyidina Muhammad baye fatima bint Rasul dem len ci moom julit ñep fakhando def ben ful jëm ci sayyidil wujud wa alim shuhud sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñëw taxaw julit ñep nek ci ginnaaw sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñep tok ci ginnaaw bu ñëwee ba ci kanamu arash moom yonent bi keroog dafay kàbbar bëgg julli day taxaw bëgg wax ni allahu akbar yàlla ni ko déedéet tey du bisu julli jëf amatul sal tuta washfa tushaffa wala sawfa yutika rabbuka fatarda sal tuta yàlla daan yonent bi sal laajal tuta ma jox la washfa nga sam nga sàkkoo ramm tushaffa مرة مولولا ما لو كنت سورة دحا والدحا والليل إذا سجع ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك في الترضى ما لو كنت دنا على جوخ بانغا دويلة بما لك وخي ياني خيل نار وعي ما تغل لو خمني بما لك وخي خمني سوما لو خي دنا على جوخ بانغا دويلة دنا كو ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك دالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى yonent bi xel mi sogaan bi dal mu siggi yàlla ni ko waxal loo bëgg ma defal la ko fël tuuta laajal ma jox la moo tax yonent bi daan wax ni man duma maye yàllaay maye waaye li yàlla di maye yépp ëllëg sama loxo la koy teg maa koy séddale allahu huwa almu'ti wa ana alxaasimu loolu tax bikkir yi ni ko woon fa anta baabullaahi ay imri'in ataawu min gayrika laa yadxulu noo tax bikri yi ni ko yow yaay buntu yàlla yow seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mii bintu yàlla nag ku bëgg jaar ci yàlla te jaarul ci yow seyduna muhammad du dugg moo tax lépp loo bëgg ci yàlla jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa soo ko jaaree ci yonent bi dafay yomb waaye ni yàlla amee bunt muy yonent bi noonu la yonent bi moom it amee bunt laaj ma kuy bunt yonent bi mooy borom guddi gi asayidi cheikh ahmad tijani radiyallahu taala anhu yonent boobu nag yàlla defal noonu mu ne yàlla bëgguma dara tey xam nga lan laa bëgg sama xeet yëpp dugg àjjana yàlla ni ko demal keroog ba mu bindee àjjana ba pare dama ko defar ba mu jekk mu tëj ko boom ni ràpp jël ri caabi ji teg ci loxo ridwaan mooy malaaka biy garde buntu aljana demal nga fëgg nga déglu lim lay wax ci bi ñëw daal di fëgg buntu aljana aati baabal jannati يوم القيامة فأستفتح فقال الخازن من أنت قلت أنا محمد إن عبد الله فقال الغازن بك أمرت أن لا أستفتح لأحد غيرك رسول الله إننا إلا يوم القيامة كم تشيرني يقول بالي أنا تخو تيل باراني من آتي باب الجنة إلا يوم الخيام دم يدق البنت الجنة من يلنتبي صلى الله عليه وسلم رسول الله نسمع يولي بنت الجنة خم ما يدف فأستفتحه مفق بنتي فق دي فق إلا يوم الخيام ينتبي يدي فق بنت الجنة نسمع فق بنت الجنة فقال الغاسن من أنت نك ملاك بي قرد الجنة نمو كوكو كان لا أنا man Mouhamad ibnu Abdallah may Mouhamadu mii doomu Abdallah nee na kii garde ni ma eh bi ka astaftixu bi ka umirtu an laa astaftixa li ahadin gayrak mu ne ko yëgal ni yow sang bi keroog bi yàlla bindee aljana defar ko ba mu yaatu daf ko tëj ba mu ni rab. mu jël caabi ji teg sama loxo ni ma bu ko ubbi lu dul da ngaa dégg turu muhammadu ibnu abdallah su fekkee na nga ubbi àjjana ba mu ne ŋàpp nga jël caabi ji teg ci loxoom ci nga plus buntu àjjana bàyyi koom àjjana lu ko neex def keroog la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di dem ca côté safara ca côté gauche xam nga àjjana ak safara baabun baatinuhu fihi rahma wa zahirahu min xibalihi al azaabu xam nga àjjana safara nu ma la koy misaale mi ngi mel ni frigo biir bay sedd biti bi di tàng noonu la mel moo tax yenn saa yi waa àjjana bu ñu nekkee àjjana ba yàgg waa safara dañ leen di wax ni eh est-ce que yéen li leen yàlla waxoon gis ngeen ko ñu ni gis ba gis lu raw loolu gis ba gis lu raw loolu gis ba gis lu raw loolu yonent bi taxaw ci côté càmmooñu ajjan bunt bi féeteeg safara saxaaba yi laaj ko bu ëllëgee lu tax ngay taxaw foofu mu ni bañ kenn romb ma ci sama xeet dem safara ubbi bunt bi taxaw du wax Fatima du wax Umu Kalsoom ay doomam du wax Roqaya du wax Abdallah du wax Xaasim du wax kenn xam nga lan lay wax ummati ummati ummati ummati mooy ay yéen sama xeet kaay leen dugg aljanna ummati ummati ummati su ko defee xeet gu nekk ànd ak kilifa gala tegoon ci yoonu njub ngeen àndandoon ànd ci gannaaw yonent bi dem àjjana yawma nad'u kullu unaasin bi imaamihim ñu dugg biir àjjana bu ñu duggee biir àjjana nag nga dégg ñu commencé di sant yàlla الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الجنه نتبوا من الج... واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين يلا نينا نعم، ما لين كو فاي لي تخ ما لين كاي فاي ني نين گمي وون بگي وون سوبي وون سما واجي موي كان موي سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم kon nañ fexe sopp yonent bi yàlla nee su ñeen bëggé ba bëgg leen bëgg leen sama waa kul qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allahu da nga jaxal xana yor loo daan tax ma daan def non rek waaye bu dee ma ma jommal baal ma rek bala ci aha aha lolou mam ablay saw bu Dagana moko wax li nga wax ni wax ben ben rek ma firi ko gaw bala serigne di ñëw acca nee na sangu mi ngi fi te mo yentu yàlla muhammadu sallallahu alaihi wasallam gawal dama dem Cheikh Tidiane neena fa madhuhu tag sayyidina muhammad ibadatun dafa melni ki yow mi taxaw nan allahu akbar ak yow mi taxaw di wor ak yow mi taxaw di ajmaka نانو حبه صب سيدنا محمد سعادة تخي أدنى لا أك الآخرة نانو ذكره توك دي تدتر سيدنا محمد زيادة نرلن تلا أستف تخوال فوف يا فوس حب ذاكري أنا وانا تخي كي بغ يوننتي بي تفمو تولو دي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوغينا سي يوننتي بي ماغي دم سي ستم بو موي خاتم الاولياء دي سيدي شيخ احمد التيجان شيخ ني سما مام دافا تخاوني انا سيد الاولياء جميعا شيخ تخاوتي وتن نكو انا سيد الانبياء شيخ نكو انا سيد الاولياء جميعا يلنتي بني انا سيد الانبياء جميعا فلا يشرب شيخ يانا يوخ شيخ نينا فلا يشرب ولي ولا يسقع من نفخ من لد ادم الى نفخ في سوري من بحرنا هذا شيخ ني امول بن ولي بوي نان ci géeju maarifatu billaahi wala ngay tànq di jox keneen muy naan ci géeju maarifatu billaahi lu dul gis man maa la tànqal man cheikh bul way sëñ Babacar ne na lut wir dugu laasba la tajjat bisa abadan ina al manaila tehmi min mazayaaw sëñ Babacar ne yow taalibi tiijaan bi rit werdal rit téyal wir dugu wir du cheikh te mooy salaatul fatihi al azba ba di aji neex al azba bañ a aji taaru laa tajjar bul bàyyi bi zaa ci werdu wii di werdu tijaan di salaatul fatiha abadan mu ne leneen li ngay séenu inal manaila naka tiwa yeneen wali yi yudul tijaan teg mii ñu ngi leen branché min mazayaaw ci wali yu Seydi Cheikh Ahmad Tijaan benn boobu rek aha aha jërëjëf لولو سن لولو سن بابا كروي شيخ تيجان موكو وقت حضرة الغيب شيخ تيجان دفا تغو تي حضرة الغيب روح اولياء بي اولياء ويب تغو شيخ كل ولي اغزو مني ولي يبتش من لنجاب تي حضرة الغيب سن بابا كرني كل شيوخي فقول الحق منفردا من حضرة الغيب إن رب أعلاه سن بابا كرني كل شيوخي بولن سرين سب جنة والكن فقول الحق وخدي دق منفردا تشيخ ويتي وخ كو تكنن مويلا كل شيوخ اغثوا مني سيرن سيب من مان لا نجاب شيخ نك تبول تب ماما مامام شيخ تيان خولا تي غاتال بما انا جيروم نيارات لا موكال القران بما انا نيار فكات لا نيك عالم كل فن لب يخم وخم بما انا فكات ak جيروم نيات لسولندو ندايامات بايام commencé di wër góoru yàlla yi di wër góoru yàlla yi di wër góoru yàlla yi fu mu dem rek am fa dara fu mu dem am fa dara fu mu dem am fa dara fu mu dem am fa dara ba ñëw ci Mouhamadul Bikri yu Mouhamadul Bikri yu xool ko jox ko tariqatul xelwatiya mu commencé di ko zikar moom Cheikh Tidiane mu laaj ko loo bëgg mu ne ko xutbaaniyatul uzma mu ne ko lakk aktaru min zalik yow li ngay am moo ëpp xutbaaniyatul uzma boobu mi ngi koy junj xaatimul anbiya xaatimul awliya yi ak katmiya moom la koy junj mu ne ko ak lakk aktaru min zalik Cheikh Tidiane taxul mu bàyyi mu continuer continuer mu jox ko xelwatiya mu jox ko Mouhamadul Ghali ak Aliyini Tamazini ñaar yooyu rek la may xelwatiya ñoom kese ñu koy zikkar jekk booba Cheikh Tidiane am 46 ans ñeent fukki at ak juróom-benn ci la ko maamam rasulullahi feeñu ci abul samxoon ni ko fatruk jamiama bihi ahsa tariqa boo jàppoon bàyyi ko amatoo sëriñ xajatoo ci gannaaw kenn ci gannaaw kenn nga xaj muy man anaamu rabbika wa anta walidi wa cheikhuka al abaru kulla masnidi fatruk cheikh jamia ma bihi ahas cheikh werd woo yoroon bàyyi ko sëriñ boo yoroon bàyyi ko ñépp nga bàyyi leen ma jox la li gën Cheikh Tidiane ma bàyyi lépp sama maam booba maa ngi am ñeent fukki at ak juróom-benn xam nga ñeent fukki at ak juróom-benn soo ko déchiffré mooy 46 laam la yaa fukk muy 40 waaw 6 muy 46 ans mu tolloog waliyu mu jox ko tariqa tijaan xam nga lu mu ko njëkk a jox tariqa bi astafurlaa la ko jox téeméer yoon salaatul fatixi téeméer yoon loolu Cheikh Tidiane werd na ko ñeenti at loolu rek mooy tariqa bi ñeenti at quatre ans astafurlaa téeméer yoon salaatul fatixi téeméer yoon loolu rek moo doon werd bi ba Cheikh Tidiane am cinquante ans juróom fukki at maamam feeñu waat ko dugal ci laa ilaha illallah لا إله إلا الله laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah moo tax tarixa la boo xam ne soo ko jàppee te bàyyi wuloo ko loo tilim tilim da nga ànd ak tarixa bi dem aljan alaaji maali ba ko wax te ci mbindu cheikhu umar la ko jëlee cheikhu umar nga ko jëlee ci cheikhu tiijaan te cheikhu tiijaan nee na tarixa bi lépp lu ma leen ci wax du samay wax waxi rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam ala marraten minha من النار فدية وموت على الإسلام في ذاك يسوع على جمال من بين بيرو صلاة الفاتحة نجابكو نجانكو تبين كو جان نغا فاست سقول ماغي جان صلاة بي گن سي صلاة بي ماغي جان سي صلاة بو خامني ماغي جوغي سي حضرة الغيب صلاة بو خامني لي ني جان سي كو سوف لن رك موكو سي اوب دولي لن رك موكو سي گن فور لن رك موكو سي گن ماغ القران الكريم لودول القران الكريم صلاة الفاتح بوخنا من لدن القران الكريم ثلاث الفاتحه بوتنا شيخ الحاج عمر نينا رضي الله تعالى عنه نينا جوني جير جوني جير جير بنك جوني خير نكفا جوني خير ونك ام جوني فاصوين نيت كنك ام جوني جم جم بنك ام جوني بوب بوب بنك ام جوني لامي ني ذكر جوني ات ولا فك جوني ات beneen zikkër bu dul zikkaru salaatul fatiha nee na yooyu yëpp suñ ko dajee teg ko yow mi zikkër benn peru salaatul fatiha yaa leen ëppale doole alaaji Maalik wax na ko ci faakia Cheikh Alhaaji Omar wax na ko ci rimaax wax duratul xarida Mouhamadou Nazif yi wax na ko boo demee ci jawaahirul maani Cheikh bu Alina Harazim Cheikh Tidiane wax na ko mu bind benn peru salaatul fatiha loolu mooy doole ci ala marratin minha min annaari fidyatun wa mawtun ala al islaami fi zaka yursamu kon tariqa bi yàlla nañ ci yàlla dundal ay yàlla nañ ci yàlla dekkal guddi gi nag guddi gu màgg la guddi gu foor la guddi gu bëri ngëneel la guddi la goo xam ne gii képp ku ko màggal di nga ci am yi wuréy damay dégg ci ceerno mu ni ñetti guddi ñetti guddi ceerno bi damay dégg mu ni ñetti guddi ñépp ko war a fonk waaye rawatina taalibi tijaan ma ne ko yenn ñett a ñett yan ñett mu ne ma yebbu rabiin yebbu rabiin mooy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm fi sang bu tedd bi juddoo woon muy Seydina Muhammad te xoolal cheikh weer wi ñu génn mooy lan shawaal ci la jot maqaama xatmiya weer wi ñu nekk mooy lan safar ci la jot maqaama xatmiya weer wi ñuy dugg mooy ban rabiul awal ci la maamam judd gis nga tegle bi ni mu rafet shawaal mu jot xatmiya safar mu jot xatmiya rabiul awal sang bu tedd bi ñëw muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cerno nee na yëpp rabiin nañ ko fonk muy fukki fana ak ñaar ci weeru gàmm ndax bu dul woon a judd yonent bi dara du am kon kooku dañ ko wara a fonk Cerno nee nañu fonk kazu rajabin ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab nga xam ne ci la yonent bi demoon jëli ji julli mu ni ñépp ko war a fonk waaye rawatina taalibi tijaan ndax taalibi tijaan dong mooy taalibe boo xam ne xoole ci julli ci julli ci julli naafila Cheikh Tidiane daf la ciy sanctionné naafila laa wax Cheikh Tidiane am na taalibe boo xam ne muy dugg ci jàkk ji dañ naan salaatu xayri mi mu julli fajar ànd ak Ibrahima la julli suba ànd ak ñoom Samba ndjay ak ablay Bari ak ñom kone ci mbalan wasifa bi ñu wasifa Cheikh Tidiane diko xol wer ne ko lu tax do jitu bala salatu xayri min nawmi def ñaari rak mu ne ko heure bi may yew ak di waj non lay toll Cheikh ne ko jox ma sama kurus mënoo yor sama tariqa ganaw julli timis Cheikh Tidiane kuy talibi Tidiane lima la wax ma ci ca ganaw julli timis Cheikh Tidiane ne boo jullee timis ba noppi na nga def ñaari rakka Cheikh Tidiane ne bu xatee ba mënoo def ñaari rakka defal juróom fukki salaatul fatiha Cheikh Tidiane ne safa ak huit heures bi nga xam ne gannaaw gee boo naafila pare moom nga koy si teg Ablaye Bari julli gee naafila ni damay xaar ba trois heures du matin ma jóg soogaam di def sama safa ak huit heures continuer sama course ba fajar far yàlla dogal mu biddanti Cheikh Tidiane ne soo biddantee nga yeewu dégg ñu salaatu xayri min nawmi jullil fajar julli suba safaak witar bu jant bi génnee nga fay ko maw eh, eh, Maodo ni soo ko fayee ba pare Cheikh Tidiane lañ ci teg ñetti jawharatul kamal da nga koy waxuma la nga fayee ko ñetti jawharatul kamal da nga koy fay ba pare teg ci ñetti jawharatul kamal li ma lay wax man nga ca faakee bu alaaji maari kon looloo tax Cerno ni woon nañ fonk ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab muy julli ak guddi tey muy xayu safar yàlla nañ ko téewee déwén muy fi fan ak juróom-ñett ci weeru safar yàlla nañ ko téewe déwén ci barke yonent bi lu ñu fi ñaan na nangu salaatul fatix yi na bari astaxfirullah yi na bari lay laay la laa yi na bari lépp ñu def ko di yonent bi yéeni ko Seydi Cheikh Ahmed Tijaani Chérif radiallahu taala anhu ndax salaatul fatix moom garanti la moom boo ko commencé werd boo ko xasee ba téye moom sooy boo dafa ne woon nañ bañ a naagu rek waaye sooy boo nga dalal sa xel xam ne ku baax le ëllëg nga baax le ku baaxlewul nga baaxle yàlla ñëpp baaxle ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bu ko defee kam ni nga ko baaxoon di defee rek nga beesalaat pas-pas yi bégalaat tamit taalibe yi nandalaat leen tamit ci leeru Seydi Cheikh Ahmada Tijaani ba ñépp fa tabaarakallahu bu ñu fi bàyyee ko te tamit dem danañu xam kan la ñu am muy Seydi Cheikh Ahmada Tijaani Cherif radiallahu taala anhu kon ñun ñëpp ñu beesalaat tamit jotaay bi dégluwaat suñu góor gi ñu seet moom it lan la ñu àndil ci Mawlana Seydi Cheikh bu nekkee ci biir waxtaan bi incha allahu no dana ñëw bu ñëwee ñu jox imaam Moussa Gueye bu imam Moussa Gueye noppee incha allahu taala no moom mooy yeggal yëf yi bu ko defee ndax am na ñoo xam ne bu guddi gi jeexee lu mu sori sori sori dañuy ñibbi ba seeni kër kon nag bëgguñu téye kenn ngeen baal ñu àq bu baax a baax bismillah ba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الصلاة والسلام على من بسر بالتسنيم وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والردوان والأنصار الذين عووا ونصروا وبذلوا لإيزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا ورضي الله عن قطب المكتوم مولانا سيد الشيخ متجاني وعن خليفته ووارث سره الشيخ عمر الفوتي تال إخوة الإيمان والعقيدة أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم كل عام وأنتم بخير بندرابي جولبي بندرابي تجاني أنكوبي mi salmini on salminagol islam salminago ngo ganduɗa hersata salminɗo gon ما salminago si wiide on kisal yurmede e باركي yo wone men enen fof mbeɗa salmina tanum eh, rasulullahi ceerno amadou sow a nelaaɗo wi gaddi mo ɓuraychan gardane taniraɓe rasulullahi wata garda ɗeɓe enen juromba enen jippinamba jipporgal makka enen mbiyamba bisimilla makka e hadara makka en calmina ceerno men ceerno yeroɓan enen juurombo no feewi no feewi no feewi no ñaagonooɓe allah balɗe juuɗɗi ceerno amadou bara a jaaraama e coktirgal ma chok naane coktuɗa damal ngal beltima hen no feewi haala ka pa mouhtar silla ahsanta atqanta akmaltal kulla ceerno pap pap pap mouhtar kanko tan omo wawno jogade hirde nde o weltini yimɓe kono ceerno e moƴƴere mum e laaɓderagal mum wi goto foof tan <coughs> yo meeɗe hen meeɗe meeɗa goto foof yo meeɗe hen kono enen ceerno tan so arino joguimo joɗimo huccite men tan ene yonanno taw hay goto haalani walla o haala ƴogani e nder haala makka taw wona enen enen kaala jammo ko jamma mawɗo jamma seydi chahma tijani ko yidde tan addi en ɗo alhaji malik e deftere makko witen khilasu zahab fi sirati hayril arab o laysa li amalum min dal mi ala yela alqaka somi hawre ma janga ya amali ya an sehilamo rasulullahi ala fof ko gollanmi allah ko ganduɗa ko mbeɗa jogui yakara janggo ma nannam aljanna en mbi hay tafsir ma alqurana mbatta lewru korko o wi hay tafsir o hay capanɗe jeenayi e jeenayi mo gaddam mbaɗɗa ɓe janginɗa ɗumen goto fof goppuɗa ɗum hooti uddite daara waɗi jama ene janngina kañumen ni hay ɗum o wi hay ɗum darɗe ma jamma ɗe o wi hay ɗum wona ɗum de wona ɗum waɗi mi yakarde ta allah en mbi hol joni holko jakarɗa nanuma aljanna o siwal mahabbati so wona yidde tan siwal mahabbati so wona yidde jiɗmi rasulullahi nde tan watta asim so wona jammaji mawnintumi nelaɗo allah ɗi والسلامي سوانا جبلا دمين الله صلى الله عليه وسلم وليس لي عمل القاك يا عملي سوى المحبة والتعزيم مثال مني ففنون حضرك تاريخ وشيرنا بغندا بيك يمبي بغندا بيك انتلكتلين كيمبي فينبي جانغوبي هاي دارا واوا دومين فونتودي كوين ابراهيم بريين شيخ آه باتشن جاين ceerno ibrahima la en ɓeeɗo cheikh eh, tidiani ndoyen ko yimɓe joom haqqillaji en so yooɓe goppi fof eɓe ndewe ceerno ya quelque chose wonko woni ɗon wonko woni ɗon wonko woni ɗon samba talen wona bolle puyɗi seeɗa diftatako ɓeeɗo wonkoɓe jii ko ɗum noon nden yiddi noon addi en ɗo nden yidde addi en ɗo e jamma seydi cheikh hamadou tidiani radiallahu taala anu banndiraaɓe julɓi ummo haatul muminin en on njaraama <clears throat> eɓe kaalatno ke ɗemngal national wona haalatnoɓe wona ɗemngal national kaalata min ko international kaalatmi min <laughs> min ko pular kaalatmi alhamdulillahi rabbil alamin enen ngari haa naati suudu nene makko ɗo ɗo feeñi ɗo e aduna en naati ɗon mbeɗa wonde seydi abdou moutalib a tijani pikine seydi chahma tijani yalti aduna ko fas ndo feeñi aduna noon ko ɗakchu wite ko nakchu nakchu wite nakchu hein ah. jubur naaɗaaf to ɓuri chintoyde mille cent mille cent cinquante woni nakchu eyi walla mbiya chaqnu fof ko fof ko mille cent cinquante rek mille cent cinquante nakchu chaqnu ko ndeno feeñi hakkude makke rasoulullahi duuɓi ujunere e temedere e duuɓi capanɗe joyyi pas Makhtar Sylla a Djaram. Au yalti aduna ko faas sabiyatu yawmil khamis subaka alkhamis o yalti o yalti o yalti aduna baada an adda faridata subhi caggal julde mbo subaka o waɗi wasif summat daja o leeli omo huccidi bange funnague wa in o yo rokki ndiyam o ummi o rokka ndiyam o rutti e ɗo lelinoo ɗo omo wiya allah allah an nuru yahruqni min de min de annore nen sumami sabihatu yawmul hamis ɗum wonno ñande hen ko ñande hen o yalti ɗonete e galle makko biyeteɗo darul miraya to fas hay toon kadi en naati toon alhamdulillahi rabbil alamin o rokka wirdo ko abou samhoune ɗo waɗatno halwo suudu ndu waɗatno halwo ndu alhamdulillahi hay ɗon kadi en naati ɗon <laughs> wallahi abou samgun woɗɗani sallala ko ɗon o waɗno halwo makka mawɗo o ɗon rasulullahi tawi mbo totti mbo wirdo almudo makka biteede ibrahima arrayahi a tunisi ene mantamani zakallesi naala malam yahwihi basharun min al ataya walam yah mi qiyasi rawsul baraya a azamu an yujila bi qirɗa si min paamani o wi ruhul wujudi wo ɓuɗbul kawni markaseuhu midaduhu sirruhu saari ilan naasi sadia mbiyama ramsul wujud fof ko kanko rek grade uji makko rek ramsul wujud wo sirrul haqqi ɗal samuhu maknunuhu kanseuhul mohfa bi hurrasi omo <laughs> ɓanta ceerno makko sertijane rek sax tidiane rek quatre mille quatre mille wona e quatre mille e eh? quatre mille eyo eh, aɗa andi que <laughs> wa bada shahrin wa layali nirtaqa maqama hul maktumi an kullil wara siwa nabiyi ma wara'uhu wara quatre mille o ko ñande sappo e ɗiɗi harana hakkunde quatre mille e quatre mille ko lewru e balɗe jeegom walla lewru e balɗe jeetati maqamuji ɗiɗi martabuji ɗiɗi ɗo dañi hay goto dañani ɗum e waliyaɓe allah noon hen martaba goto ko ɗon e darul miraya woni hatmi o ñando takkata annabagal ngal manna wilayo o waliyo mawɗo dañatake yeesa makka ala ma wara hu ala yeesa waliyagal makka wara u yeesa hay goto wonta dañde on garat ɗum khatmiya ko ɗon tan caggal wirdude mba i eɓe ngayni hadara o o hoyni dow tan o hoyni tan o ñortana o holla dow lawhul mahfus o nani hati fur rabbani ene wiyamba hannde a heeɓi ko hay goto heɓani garad garad waliyagal waliyi goɗɗo meeɗa ɗum dañde ɗum ko ɗon ñande sappo e ɗiɗi haran wonno on garad ko ñande hen o takki ɗum woni khatmiya wondi annabi mana waliyu goɗɗo ene wawi arde caggal ma mais dañde garaɗe ma dañɗa o dañata waw wonde waw wonde o jooɗi ha woni sappo e jeetati nduɗo lewru woni lewru e balɗe jeegom ayo baada sahrin wala yalin nden irtaqa nden o ngabbi ila maqami hi feede martaba makka al maktum cuuɗunoɗo an kullil wara hay goto meeɗa yiide on garat siwan nabi siwana rasulullahi koko suuɗuno maktubun maktum koko suuɗa on garat hay goto meeɗa ɗum yiidi eyi saabu nel e eh, nelaɗo allah nde yehi nde dow asman faw ha ila abdihi ma ma aw ha ma o noon foof nen ɗon gandal neni ɗum ko min tan e ma min rokkuma an jeeyi hay goto a rendani ɗum ɗo ko min rokkuma kalan yimɓe foof ɗum ɗo noon ko min rokkuma ɗum mo beelaɗa fo dokka o yiiɗi sehtan o rokki ɗum salatul fatili ma o ɗiga eh, ni rek foti o dañi noon maktum maqamuhul maktum ko ñande sappo e jeetati sappo e jeetati jamma hannde o jofi janngo jamma hannde o ɗum waɗi woni fatu cheikh yimɓe no mbarkinoro ɗum cheydi cheikh amo tijani rokki en rokki en addani en salatul fatih lima ugliga e denndaangal waliyaɓe allah e on zamanu gooto en fof ndu hollono martaba seydi cheikh amo tijani naatini ɗum halwa won hen jiha goɗɗo e cumi donki jalti goto dañi hen duumade hen juuti hen ulbul bisri o wiite duuɓi nawgase e kelk o tampani ɗum allah wimam rokki hen yaɓere wootere noon kanko wi billahi lesi la ilaha illa hu kala birduɗo yaɓere wootere salatul fatihi naati wiyana nanne e jeygol yo ar poñami kanko kanko ɓuɗbul bisri mi wiyani sappo e ɗiɗde ɗum ko laawol men ngol waɗi masara bayni noon waɗi jarirɗi ɗiɗi tufli ɗiɗi waɗi waɗi tufdi alqur'ana ɗum ko sunna deftere nde laawol ngol waɗi ko sunna laawol ngol ko alqur'ana laawol ngol fof so a ƴeewi to ndeerto fof ko qur'ana woni toon fof nen toon ko alqur'ana rek haqqa qadrihi wama qadrullah haqqa qadrihi en e ko way noon e ko way noon e ko way noon ɗum ɗo fof noon ko seydi chahamou tijani rokka ɗum ko waliyum min awliya illahi ko joom karama a wawa wonde ceerno takka grade il faut takka ɗiɗo gara duuɗi joyi kam mbawa wonde kam ceerno biteɗo ceerno grade goto ko man alifan nas wa alifuhu nas asseyhu allif lamchin toyɗo jibriya ha cewɗo piccuɗo من ألف الناس وألفه الناس أوا وهم بهم بينقوما حميد الله ربي إذ هداني وولاي نظمي قصيدتي جنون نهميت الله ربي إذا داني إلى من قصيدة ذي تجاني حميد الله ربي هداني إلى نظم القصيدة في تجاني شرني حميت الله ربي إذا هداني إلى نظم القصيدة في تجاني حميت ربي إذ هداني, هداني إلى نظم القصيدة في تجاني ترني حميت الله ربي الهداني إلى نظم قصيدة تجاني حميد الله ربي إذ هداني إلى نظم القصيدة بيت جر حميدني صلاة الله بادر كل شيء والله على خير ولا جديد جاني حميد الله ربي إذ هداني والله قصيدة بيتي باتجاه شر وردوان من الرحمن ربي بلا صغد يلي عن تجاني قميت الله ربي إذ هداني إلى نظم القصيدة بيتنا شرنا والخلفاء الأبرار طرا ومن عجب بعراد تجاني حميد الله ربي إذا جاني آه، والله إلى نظم القذيدة في تجاني لهم في ورد جه شرب أليم فيا بشرى لأتباعي تجاني عبد الله ربي إذ هداني إلى نظم القصيدة بيت بفلني لهم في بردي شرف عظيم والله لهم في بردي شرف عظيم شر لهم في بردي شرف عظيم شر لهم في بردي شرف عظيم والله لهم في بردي شرف عظيم جرنا ليلا لهم في وردي شرف عظيم جرنا لفيا بشرى لأتباعتنا والله فيا بشرى لأتباع الدجاني اللهم في وردي شرف عظيم يا بشرى لأطباء تداني أميت الله ربي إذ هداني إلى نذر القصيدة بارك الله جزيتم خيرا تيرنو نقول بسم الله أيدا يميري كم حمد المختار شارلو فيا جوكيب نجاري خمد عالو بسم الله غنا دندك زكا الذي نال مالم يهويه بشر من العطايا ولم يعرف بمقياسي سيد الشيخ تجاني رضي الله تعالى عنه المود مكن ibrahima rayahi a tunisi radiallahu taala anhu ene manta alamul arifin imamul awliya o zakal lesi ko oyo kaldata mi oyo zakal lesi naala keɓɗe maalam yahwi hi basharun ko ɓandu waliyo allah meeɗa moftude e meeɗa dañde allah rokkimo ɗum mo ngannduɗa o walam yu'ra fo andirtake be mi'yas appa pre tan ni o foti waade ala wona chertijani o anndirtaake non mi holmo jiɗɗa haaldoye gawsul baraya faabo windere sabo ko gongo salatul fati sa wirdi dum tan allah faaba ma o addi dum non pour faabaade tagore alla nde salatu tan goto sa juule rasulullah lawol goto tan allah yeeƴo juulo e ma laabi sappa dan dum kam ni heewi doole qur'ana jangata tan har fere wotere daña baraji sappo da bakkatuji sappo daña garaduji sappo ɗum aɗa anndi ko dañƴa mais mo allah yeeƴi juule mum gootol ɗum ɗon hulɓini no feewi allah tabaraka wa taala sababude juulde men nelaaɗo allah salatul fati lima ohlika noon ari ko juuldi zaka rawsul baraya aboul abbas o wiyete ahmadou noon won indi nde manahu dal fodde makka daraja makka e martaba makka asama ɗum ɓurti an yujilande feññinte bigirɗa si e kayitaji daneji tan a wawa haalde hen ɗum ɗon seydi chama tijani kayitan windude kayit e ala ɗum famɗiri martaba makko oɗo jamma noon hannde ceerno men ceerno yeroɓan ibnu atman o wi ngare ngare male ɗen ngare dañe baraji ngare hunde wande fayida so que neɗɗo rema guesa lewa ha gayna rema aawa fuɗu soño lappa nawta wuro une seɗe yerwe jomum waɗa ɗum laccir faw hen ha pawdi ha moƴƴa wifa ɓo wima ar ñaam franchement poɗɗa ko ñamdi ɗum o waɗen en hanndi <laughs> gare gare dañe baraji gare mala ɗe fatou cheikh mawnide jamma woni heewi doole woni jamma quatre mille ceerno quatre mille eyy eyi quatre mille o ko hannde jamma o heɓi ɗum hunde suuɗunode kam garade mo ganduɗa hay goto meeɗa en fawde yitere mum sona rasoulullahi siwan nabi suwana moustapha mouhamadou ma wara ahu ala yeesa garade o wara u yeesa wara ko caggal wonano kono oɗo wara ko yeesa ala yeesa oɗo garade n wara u yeesa caggal wirdudembo ɗon e darul miraya galle makko wondude e seede kadi almudu makko koolaɗo makko biteɗo aliyul harasim albarrada o jaggue junngo mum ar ɗoftan eɓi o jaggee junngo on eɓe ummi eɓe ndari o wi on yo muumno giti mum muɓɓi giti mum o wi feere feeri tan tawi ombo huccitee arfa haa jabalo arfa ay taaɓanɗe tati tan ombo huccitee jabalo arfa ombo jaggee junngo aliyul harasim al barrada ko wayna annoore no ummo e arfa ene fiilo ene fiile e hoore nde annoore kaala mbo wi aliyul harasim al barrada haala ɗum haa gasi haa laaɓi o yano wayno pekkorɗo ni mbo signe on jamma o rokka quatre mille woni taaɓande tati ɗeɗon eɗe ndari darde lasim astahfirullah lasim allaysi la ilaha illah temedere mbatta ɗum la ilaha illallah temedere salatul fati temedere ko ñande hen o heeɓi ɗum ummade nden faade hannde hay goto heɓani ɗum dendagal waliyaɓe allah ɓe neɓe ndidori kamɓe foof de ke rasulu seydi chahma tidiane ɓe branchi kamɓe foof kamɓe fof kadi kamɓe kanko ɓeydata ɓe o addani en laawol ngol ngannduɗaa wonaa raksu wonaa amde wonaa sabar wonaa foɓɓudi alaa ko laawol tan njooɗaɗaa ngonndaa yimɓe mbirdaa e quinze minute keɓaa kala kene heɓe min hayri halwatin wala tisaline aninnasi walla a follataa ko yimɓe a naatantaa ɗum halwa a warñataa dañaa kala kene dañee salatul fatili ma ohli ربي بلا خلوتي دوم كنقول دو لاول دوم دونن فمن سافل اليومين ومن سافل اليكفر كني الله ودي الله ودر كوكو ولا ودر دوم دو ولا ودر دوم بو ولا سيدي شامة تجاني كرسول الله ركي ملاول نقول يقزتن بينال أبو سامغون أما حالنا دوم gardatonoɗo zawi makka o hamdul misri koye lammar lammar lammar lammar tahal tu e, min tilmisan ila abi samhun wa sallala kanka haalata lammar lammar tahala <laughs> nden cheikh tidiani ummima min tilmisan leydi mbiten tilmisan wa ari abou samhun omo haalana gardatoɗo zawi o comme no ceerno ibrahima la ardirto ni zawi cheikh umar gonɗo ɗo o wi on tractu jami jami a ɗuruk alleti ahastu ha anil achah dendagal laabi jaggunomi e seerenɓe fof halwati hen fof mi woppu woppu so tawa o jaggi lawol halwati hawo rokki watti hen rokkirdi oyimi woppi fof o wi noon almudou makko almudou wi ma sababu leti to addi ila tarkiha hol hol hol probléme garɗo ko kewi haɗo woppa lawol laabi jaggunɗa ɗi o wi aɗa ni seyidal wujud sallllahu alayhi wa sallam ɗariɗa wa amara ni bi lusumiha min gayri halwatin wala tisalin aninnasi seyidal wujud rasulullahi rokki kam laawol o yamrimi yomi woppude ndangal laabi ɗi mi jagge laawol ngol mi ñiiɓe heen kadi min hayri halwatin taw mi waɗani halwa mi woppa halwa ha laaɓa wala tisani ani nasi mi follataka yimɓe mi follo mi wondata e nder yimɓe mbeɗa ñanti mbeɗa mbeɗa waɗi parfum am mi juulu mi wirdu kadi mi daña ko dañete ko hen wala anani bi zalika ɗariqa lesi kunna alayhi l an o longinimi laawol ngol ganduɗa ko ngol birdeten joni birdan ɗen ko ɓoyani kore woni salatul fatihi lima ohli o woni seydi cheikh amadou tijani saaltu seyid al wujud hala ana sharifun ميلي نامنا رسول الله بل منكم الشريف هو أنت مني أنت مني أنت مني حتى قالها سلاسة أنك أم جيدا أنك أنك من نهما أنا شيخك ومربيك وأنت ولدي حقا أي بجت جنو ما كفايتين سيدي شامتو جنو أنك من نهما أنك من نهما جلا أزل دي جلا أزل جلا سوى فينجي أنك من نهي فتانو wo cheikhu ko an ko min tan woni ceerno ma womo rabbi ko an ko min nema o anta waladi haqqan an ka ɓiyam an ka ɓiyam tan an ka sharif an jibinɗomo no hani jibin ma saabu bama ko moƴƴo kana aliman wari an muttabi an li sunna mudarrisan zakira an jibinɗomo no foti jibinɗoma rek bama ko ganda ko duuɗiiɗo ko dewɗo sunnu ko juulannooɗo e rasulullahi ene haani mbayaani aan rasulullahi ne haalde e makka to abou samhun waɗɗaani sallala omo wondi toon e almuɓe makka ɗiɗo noon ɗahir huɗay bii on ƴoogiyatnoo ndiyam e to eto nokku biteede sallal ma won huit kilométre hakkunde mi e abou samhun e girbo waɗatnoo haa ɗo no wakkirtonoo nii haa ɗo ñawi mouhamadou bil arabi a damara wi ko on yahatno nder wuro addanama ñamde e nder halwa o ɗo woni ɗo e halwa ɗo a rasulullahi tawi mbo ɗon rokkimbo oɗo wirdu noon mo ganduɗa o hande kañum woni eh, eh, nasiril haqqi bil haq nasirullahi billahi la yansuru la yansuru la yansuru baɗilan wala yansuru l haqqa bil baɗil so jakkuɗo wirdu ti jaani dinan ma jabte l'imani nabi woni sehlo ti jaani ɗum noon ɗum noon allah addi en hannde arde huccidirde e ceernaaji men e oɗo jamma kala waktu seydi sohma tijanmo jogii tenngaaɗe biyeteeɗe kanko tajul arifine kono kanko nomo jogii tenngaaɗe makko ɗo fawata kala waktu almuudu makko rokka ɗum nden tenngaade ngarɗen noon hannde huccindirde o e ɗo jeyaɗo allah ceerno men ceerno yaraba ngannda ngurdam mum fof ko allah wi nelaɗo allah wi cheikh tidiane wi cheikh omrul fouti wi aɗa il faut haale il faut haale kadi hay so yiɗa haale min kaala ɗum tan somin kooti to wiya fotani haalde kaalɗa ko miyama yaafomi ni tan foti <laughs> noon min mbaddata ñande fof aywa rokkimo nden tengade kanko ne o ɓorni ɗum kuccitɗen e makka jamma fatou cheikh enen ƴeewamo yitere aliyul harasim al barrada ƴeewanno rasul seydi chahmo tijani ceerno minen juuroma minen juuroma minen ƴeewma yitere ganda sa ƴeewi ɗum yitere nelaɗa allah wi man nasara ila wajhil alim foka annamara ani kala ƴeewɗo yeeso waliyi allah ganda kuccitɗa e makko ƴeewɗama tan a yii yeesam min nelaɗa allah te kala jiiɗo yeesam ɓanndu mum harmi jeygol e mbiya ala ɗum kay tawde ko noon makka naɓe fof jii yeesama makkanaaɓe subaka fof ene njii yeesa ma o yo ala mbimi ko yitere a yitere nde ngannduɗaa nde aboubacre siddiga ne ƴeewanno ɗum rasulullahi ndeen yitere ko ndeen ƴeewata nelaaɗo allah naata aljanna ko ndeen yitere min ngari ƴeewdema ceerno minen njuuroma minen mbeltanima minen nduwanama kadi minen ñaago allah tabaraka wa taala oɗo jamma kadi woto won sakkere jammaji men ya ɓooy noddude julɓe e ɓooy notaade yo allah ɓeydo hadar o aɗa ɓuuɓni ɓerɗe min kadi kala mi ko kom gandu dum cerna amadou ceerno amadou kala mi ko koko koyi 1986 faade hande 86 be do jibina ni bare si en amu juddu ah? ñu bes bobu ah bobu bobu tan la xam serigne bi li rek la ka xame nak wote dem si yalla kay lañu wazifa kay lañu def fatou cheikh kay lañu def latif kay lañu def nangam nangam li de def ñu yok ak ñu mel nonou kon mbokk yi moo tax tey ñu ñëw sëñ bi ziyaare ko jàkkaarloo ak moom yombul si jamono ji kuy woote fathu cheikh si guddi Seydi Cheikh Ahmad Tijani ñu ñëw seet nag bët bi nga xam ne aliyul harazim al barrada moom la doon xool rasulullahi ma Seydi Cheikh Ahmad moom it mu xool ñu bët bi nga xam ni mbonaat moom la doon xool doomam xam nga mbonaat du nampal waaw du nampal doomam bu buggee nàmpal doom ji da xool bëti yërmaande rek mu fees doom ji suur kon nag bët boobu nañ mu xool ñu ko ci guddi tey gi ndax Seydi Chama Tijaan yi ci tariixa bi am na ay nit ñi nga xam ni buñ la gisee rek da ngay texe rawatina guddi altini walla aljuma ñooñu boo leen gisee nga texe buñ la gisee nga texe te ba léegi jamono jooju ba léegi am na ba ilaa yub yub'asun kon nak bot bobu lañu xolé xoolee seex mo Ndong nak may signal sank ba léegi naa kii maa ngi man nak ma ngi commencé tang waye nak bu doon suñu saga dal bu yu guddii melni mel rek moy wax ñu ñu tataan si waxam jël si li ci wax ji ñu dem sotti ci si tuuti lu amon, amoon ñu mun ko waxtane fenen waye bo toge ci sa kanamu sëriñ da ngay gêné wu do do mënu do mënu ki do mënu walbati ndax nak mom ma xal alhamdullilah gis nga téere bi ñu mujje woon way léegi bi ngeen doon way Ceerno moo ko taalif téere bale bi nga xam ne ceer Ceerno Muxtaar Silla moo ko yore woon di wax si Cheikh Umarul Fuuti yi ak Ceerno Bachiru di wax si Mawlidi Nabi loolu daal mooy liggéeyam loolu mooy liggéeyam te mosul ànd ak nit mu bàyyi ko xanaa yow yaa koy bàyyi waaye ceer na heure bu nekk dana fàttaliku tey jii mu ma woo timis est-ce que yëg nga fatu seex ma ni yëguma ko xajaa ñu ma baa waxula ko ma ni xam naa ne def ko fàttee ñu ma moo ma ko doon wax mu ni léegi nag ñëwal ma ni ko mënuma ñëw de mu ne ah ma ni oto amul tey màggal tuubaala te fi ñu nekk mu ngi taw mu ni jëlal avion <laughs> ah ma ni man nag xanaa mooy gën a de wallaay foo jullee timis balaa géey egsi naa fi oto amul oto amul foofu amul dama taxaw si tali bi rek affaire bi jël ñu jël ma ba fii ba fii wallahi wal kitab lolou xamna ni li mom am li fi rax dal <laughs> kon cierna yalla na nga yag di ñu ñaanal waaw ku ku bax nga ku ku yal nga yalla na yalla na na la yalla saxal waaw Imam musa Gueye ma ngi lay ziar xam nga yow mom yalla ñu boole di di di di nuyu nak suñu staff ñi nga xamni ño ando nak cierna depuis commencement semu job policier la won aéroport bo retraité damay wax njaay ñu ceer na moo ko doon wax njaay kooñoor ñoo àndoon ak moom bopp yi dara amul boobu temps njaay koñoor boobu bu mu buggee tàkk soxna danaa ko wax ceer Ceerno bëggul ñu wax ko mais danaa ko wax guddi googu mu wax ko na ceer na mu ni waaw baax na danañ si def dara nañ si def dañ si def ñaan mais nag doom bi boo ko boo boo amee doom bu góor mën nga koy tudde doom boobu xëy na am na vingt-cinq ans mu ngi fi bu mu juddoo kooku la Ceerno na ko tudde wala am na wala amul ñun ñoo àndoon ak ceer na bu dara dara nekkul woon dara fale Tali Diallo jàmm rek la ñu wan wax nga ko fii léegi fo bi ma euh, euh, fo bi ma rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazan xaliza al bu fekkoon da nga da doon da nga nu ñu koy waxee ah nan wolof anni <laughs> ngir yërmande ak lewet moo tax ba léegi dawuñu wala kunta fazan bu fekkone da nga doon mer di ciibatu bu ñu ñëwee nga tej ci buntu lam faddu la an faddu la mul qasam ak nunu tawkid fekk ñëpp dem nañu waye bo gisé ba légui mbolo mi nekk bu fifi ni nga mer rek yow soppé ko yow yow do soti ba dé dédé soti ba moy def tey Lagos bi ëlëk bi yow ben Lagos rek ben ki rek kon nak ñu ngi lay nuy cierno di nuyu ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam kon cierno yalla nañ yalla fa yàlla mu ne keneen àttanu ko lu dul ki nga xam ne ñu teg ci siraatal mustaqim di mawlana sayyidi cheikh radiallahu taala anhu mu ne lii ma wax nag boo ci bëggee du ca tuuti rek fata fataali fii rimah waaw nee dawal rek nga seeti rimah bu mawlana cheikh alhaaji umar al fuuti yi li nga xam ne man ceerno xaamidu li may wax teguma ko ci sama nosu bakkan waaw waaw ah nee na al ajaibu an tijaani di nga ci fekk ay mbootu kaawteef mawlana sayyidi cheikh radiallahu taala anhu لماء شيخ فوتي تجد فيه العجيبان التجاني mu ne tamit bul yem foofu de demal ci bugyatu mustasid li ma la wax rokkam ñaar Ibrahima وفيه ملاقب الغوث boo fa demee dem ci rimaax di nga fa fekk jeexitalu ay mbootu mawlaana sayidi cheikh radiallahu taala anhu demal ci kanzul sukayrij ci imaamu nazifi bi ahwaali tariqati Thierno nga bal ñu rek xamna naa ne bëggoo ñuy wax ci yow waaye dañu bëgg njaboot gi ñu xam ne bind nga li li li li ñu war a wax dajale woo fi nit ñi rek ngir ñuy wax la ñeneen ñi bind waaye tamit nit ñi war nañu xam ni Thierno bind na li nit ñi war a wax moom rek moo tax ñu wax ko التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر وأما بنعمة ربك فحدث من لم يشكر القليل دون سنت لبري motax tax yaa woote ñépp ñëw ñu xamal ni njabot gi Ceerno bind na li ñu wara waxtane waye wax ko nak ngir ci anamu sant yàlla mawlana tabaarak wa taala kon bu ko defé rek fa tabaarak allah ñu gàttandiku fofu waye mën nañu top qasida bi bayit par bayit bayit par bayit insha allah taala ba qasida bi jeex lépp mu ngi ci wax ci mbotu mawlana sayidi cheikh radiallahu taala anhu cierno yal na la yàlla fayyu yiw na yàlla guddal sa fam yal na yàlla yok say martaba yal na la yàlla lafal cat ci barke alquraanil azim kon ceeru niñ ko waxee woon rek sa dawaayir yëpp yaa ngi fi ne wane dañuy xaar nga ñëw rek ñu tudd dawaayir ci sa kanam jox imam Moussa Gueye mu andil ñu message ñu delloo la waat yëf ya bu ko defee yaa xam ngay def say fa tabarakallahu say taalibe daaira soxna salamata soo safina bi nga xam ne moom moo nekk ci Sénégal ñu takku ànd ak soxna sala diko ko dimbali di gunge di ko di ngir liggeyal maulana Cheikh El Hadj Umar al Fuutiyu ngir liggeyal maulana Cheikh Mouhamadul Bachir way tamit ngir liggeyal ku amone fi ci Ndakaar dag nga sa journée bi tay wéttali soxna Salamata mo ngi ne depuis suba nak batay kenn ci ñom xàddiwul ay góor ak ay jigen niki non tamit daayira yi nga xamne tamit ñu ngi botu ci gannaaw soxna Mariam Ba ci njitalu neene ne bi ak neene Njaay ñomit fa tabarakallah depuis suba ñu ngi fi ànd ak soxna Mariam. diko ko ci li nga xamne mom moy bëgg-bëgg ceerno kon ñoom ñu ngi leen di santal yàlla ñi nga xamne ñi ay soxna ceerno lañu waye lu ceerno wote bala keneen di ci jitu ñom ñoo jitu waxu ñu ñun ay soxna ci biir kër gi rek lañu dañuy lek di naan dedet waye lu ceerno wote fa lillahi alhamdu ñom ñoo ciy jiitu muy soxna maryam fa tabarakallahu soxna fa tabarakallahu salamata formé nañu ay safina di wéttali ceerno di dimbali ceerno fa tabarakallahu ngir rek na daara ji dem kanam yalla na yàlla fay leen daaira Dugar ki leen jiite ali Aliou Diallo ñëw nañu daaira Grand yof fa tabarakallahu ki len jiite di Ahmadou Ba ñu ngi fi daaira fa tabarakallahu Dalifor ki len jiite di cerno Oumar Sall say xarit say soppi ñëw nañu sank fekk la ci bir nga waxtaan na ak ñom waxtaan gu daw yaram nga ne li gën ci doomu adama moy nit ku dul fàtte dem yàlla dogal na ni ñom duñu fàtte dem waaye yow it nga rafetal nga ne yaa ngi góorgóorlu doo fàtte démb waaye Ceerno xam nañ yow góorgóorloo jaambaaru xàqan nga nit ku dul fàtte démb nga ndax li bay Moxtaar Tine wax léegi ku dul fàtte démb mooy tey ba tey ndax 1986 du démb du barki démb daayira Pikine mu ngi fi ki leen jiite di soxna Aïchata Darame daayira doondu ki leen jiite ci Ceerno Yaxya Konte moom it fa tabarakallahu mboolem li mu am soxnaam njabootam yépp ñëw nañ fa tabaarakallaahu bokk ak njaboot gi guddi sayidi cheikh radiallahu taala anhu daayira sincu bu mag ki leen jiite ci ceerno Chérif Diallo mu ngi nii di njabootu kër gi di doom ci kër gi fa tabaarakallaahu tamit di wéttili ceerno tamit daa daayira caaroy ki leen jiite mooy ceerno semu fa tabaarakallaahu juuf moom it mu ngi ni jóob mboolem li mu am moom tamit toppoon na gan topp na ci gannaawam ñëw ngir wéttili ceerno fa tabaarakallaahu ah ci guddi gi ak ñi nga xam ne jotuñu leen woon tudd waaye tamit fa tabaarakallaahu suñu daaira bi nga xam ne daña bàyyee ko fële ca duum nga laaw mu ngi ca gannaaw xayre laaw depuis démb ci ngoon Ceerno Imam Moussa Gueye la ñu gont waaye yàlla dogal ci yoon bi ñu paan waaye sànq wax nañ fi wax ju daw yaram li ñu paan toog nañ ba deux heures du matin démb amuñu oto ba trois heures du matin quatre heures du matin amuñu oto waaye ñu ne rek comme que rek yàlla la ñuy wuyu si duñu xàjj duñu tayal xoole li ci gën a yéeme nee nañu lekkuñu naanuñu waaye ñàkk lekk gi ak ñàkk naan gi fennul ci ñoom te kuñu wax ni lekkuñu ñu do leen ko gëm way ngir cofeel ak pass pass comme que rek Ceerno woo na na lu mu sori sori sori ak lu mu metti metti metti ak lu ñu mëna jànkonte ci yoon bi insha allah taala nañu dem ba Dakar khous ba Grand Yoff xuusaat ba yegg escal Urbam di khous ba dugg zaawiya Seex Alxaaji Umar al radiyallahu taala anhu motax tax gëreem na leen sant na leen fas yene yi tamit kóllërante ak ñoom ne insha allah taala li ci kanam rawul bot kon yàlla bu shaytan am cër ci tiofel gi yàlla bu shaytan am cër ci fa tabarakallah jappo bi yàlla nako yàlla weyel ba insha allah taala suñu yenen programme yi nga xamne ñom ñoy ñëw ci kanam mbok yi ahmadou soomaaja mu ngi fi ñépp xamnañu li moko doon def mo doon jotalil ceernu waye yàlla wa yaf'alu fi mulkihi ma yasha taala al ilahu wa jallal hakam fa tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiin moom ak moromam ñu bëri ñu ngi fii fii suñu bëggee lim ñu fi wuy si ceerno foog naa ne dañuy topp temps bi rek temps bi di jeex kon fa tabaarakallaahu ku ñu tudd ak ku ñu tuddul yëgal ni comme niñ ko waxee woon ca njëlbeen ceerno yëg na la ceerno gis na la bu amee li ci manqué ci man mii doon wax la waaye yitte ceerno moo di ni ku fi ñëw nga yëg ni yëg nañ la ku fi ñëw nga yëg sa cër jot nga ko ba mu mat sëkk xeebuñu góor xeebuñu jigéen xeebuñu mag xeebuñu ndaw xeebuñu kenn ndax kenn ku ne li yàlla def ci yow moom yàlla rek moo xam li nekk ci yow kon cër bi la yàlla jox ceerno nee na nañ la ko delloo ba mu mat sëg xeebaluñu kenn daram xeebaluñu kenn daram xeebaluñu kenn daram wa ma dalika ala allahi bi aziz boo ko defee ñun ñëpp ñu bokk déglu imam Moussa Gueye moom it fa tabaraka allahu mu àndil ñu message am ci guddi mawlaana asayidi cheikh radiallahu taala anhu fa tabaraka allahu فأتت بلطفك لا بعين التهدر إن التهدر عادة شكران فتعلقي فهناك في بهداك أعجب حكمتي من حكمتي يا حكمتي في حالتي ومكاني فلربما قد قلت في عقلي وفي روحي فكيف تجري بهواني بارك الله فيك <laughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ xam naa kàddu ليدون نخ lay doon nax جيتو feese dell kiy maana ak kiy njàngale tàmbalee ko ci sunu soppee bu baax bii di sëñ Pape Muxtaar fa tabarakallahu ak sunu imaam bu tedd bu baax bi di imaam Muxtaar ba tey am nañu ñaari Muxtaar imaam xaaji mouhamadul muxtaar tin ak imaam xaaji mouhamadul muxtaar silla may jiital nag ci nuyoo bi fii imaam xaaji mouhamadul muxtaar til daaneele te sunu soppe bii xuus ci ba sori imaam ahmed baroon ndongo Eh, fa tabaarakallah sunul xaaliqiina te mooy ki may jiitu ci ne mooy ki ñu bokk ñun ñëpp muy imaam Thierno Hamid Yero Ousmane Bane di ànd ak mbégte nag ak xel mu dal ci toggateeg moom fa tabaarakallah sunul xaaliqiin eh, léegi laa naan Thierno Mouhamed Bachir Bane ni ko nañu koy sakkantal moom Thierno mii laa wax Thierno dina sonn dina tawat te du ko wax day kama fule day kama waaye comme dañ ko soxla léeg-léeg dee ñu ko nëbbal muy noppalu ba yëg ni noppalu na fa tabaarakallah sunu xaaliqiin ànd nañu màkk gis nga yam fay daj te du tricher du tricher Thierno du tricher mukk fii it noonu di nuyu tamit fa tabaarakallah sunu xaaliqiina soppe yiñ fi fekk yépp abadila yi tabaarakallahu nuñ koy mas di waxee alxaaji abdallahi bari alxaaji abdallahi seen ak alxaaji abdallah añ ceerno yàlla may ko ay abaadi la ñuy bokki xol bokki yéene yu sell te rafet ak sunu soppe ba xaaj malik jóob ak sama sëriñ bii ma dendal sayid cheikh ahmed tijaani ndooy tabarakallahu ahsanul xaaliqin ak sunu compagnon de lutte yu tabaarakallaahu xaaji Mouhamed xaaji Tafsir tabaarakallaahu ak sunu imaam ba ca Ndar Samba Njaay nga xam ne bu ñuy dem dëkk bu tedd ba sunu miiqa mooy këram <laughs> tabaarakallaahu ñuy ziar bu baax di bég ci teewaay yi di nuyu sunu soppee bii nu janoon fii ay sang rekk a fi toog Mouhamed Fofana Koné barakallah jërëjëf di nuyu it sang yu jigéen yi nu janoon di jigéenu aljanna yi fa tabarakallah sunal xaaliqin di ñaan yàlla subhanahu wa taala na ñu may ñàgg ko fee daje te di ñu nangul bi jaahi sayyidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam dama ñëw wax euh, euh, Pa Mokhtar Sylla ni ko ci suba dama lay suivre ci jotaay bu am solo bi ngeen def te Mourchid TV ak Asfiya yi synchronisé ko bis bi laaj ko lool barab ba it ngeen jox ko la mu laaj ma ñëw ni la war nga nekk formateur ci di jàngale yi ñu tariixa bi di laaj pour ñu mën a jariñooy leeram te mooy teggin yeeg discipline yi ndax comme bu ñuy wert boo gisee ñu ñuy teewluloo dañuy tëbb ci Mawlana Cheikh Abul Abbas radiyallahu taala salaire gi mooy tëbbee yi xam-xam yu sell yi wërsëg yu yaatu yi est-ce que Cheikhu comme bu ñuy teewlu dañuy dañoo bëgg ñuy tëbb ci leeru Cheikh comme bu ñuy julli ni ñuy tëbboo ci leeru yàlla moo tax ba charte yi bu ñu la koy jox fu ñuy tàmbaleek yow julli juróom boo amul ngànt defe ko ca mbooloo ma xam nga leeru julli ku mu nàmpal leer yi julli ku mu nàmpal di julli geste boo gis ci julli dafa ànd ak leeru boppam yéene bi ngay fas sa xol sax dafa ànd ak leeru boppam fokk nga teewlu ko na mu ware kàbbaru armal ba ngay jëkke dafa ànd ak leeru boppam ak taxawaayam jàng ba ngay jàng faatiha ak taxawaayam dafa ànd ak leeru boppam sëgg ruko ba julli ga di jeex day ànd ak leeru boppam boo nàmpee nag ci leeru julli ba yëg ne nàmp nga ca war a ñëw nàmpaat ci leeru azkar yi ñu lay jox ci tarixa bi trois normaux yi tudd nga ko sànq téeméeri astaghfirullah téeméeri salaatul fatih téeméeri laa ilaha illallah oustaz mbay ka yàlla na ko yàlla doon liy leer moo ko doon wax trois normaux yi <laughs> nga xam ni boo ko teqale woon tey lu mu lay jox radiya raa ak dood ak yaa boo ko boolee lu mu lay jox du trois cent du trois cent xoolal fi la cheikh teg xaat xoolal yoonu mi la teg xaat yoonu fa gaañ a jaar de fa gaañ jaar صحابي يكوتشو تدنغنان رضي الله تعالى عنه ماغي فاتلكو جورناليست بي دون ديف ا جورنال عربي تي تلفزيون بي ا كي فال تنالون ليغي يالو كي يالرم هنا مور فال مسنا لا سيرين شيخ نيكو لوتخ صحابي ньо ييو كوتشو تدني رضي الله تعالى عنه تيو فوني سيرين بابا كرسيني رضي الله تعالى عنه سنشاهد نكو بوك جابو الصحابة جابوكو مؤمن بوك خمني لخط رضي الله عن المؤمنين كون فتبارك الله سنو خالي خير نخول في الشيخ تكحات pour nga outil gaña nga gis bo dé julli xam nga gëm dañ ko sip ci bir julli di julli di gëm xam nga werd di gëmm ñu sopp ko ci biir werd walla nga sewal say bët lool baa nga gëmm ñu sopp ko ci werd sib ko ci julli booy nàmpee fee ci leeru julli ñëwaat nàmpaat ci leeru toogaay boobu ngay toog nag ci trois nur mooyu la cheikh jox ba tey trois nur yi laazim wazifa xadratu jumaa te mooy asru jumaa ba tey trois moom normes yi dellusi na gis nga ñaari leer yooyu duggante moo lay yóbbu ba boo taxawatee di julli boo taxawatee di julli ba ëgsi ci iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'inu boo nee iyaaka rekk iyaaka ñaar yi benn moo ciy mën a am benn yàlla def tanazul ñëw ba ci yow walla mu jës bu la kooku yaa ngi koy nàmpe ci leer yooyu leer yooyu ñuy tëbboo nag ci cheikh moom la ñuy dëkkee jékk yàlla ëllëg subhanahu wa taala moom la ñuy dëkkee jëkk sunu borom subaak jàmm incha allahu taala ah, waaw ëllëg ca aljanna waxuma la aljanna waaye kër yàlla laa wax fa la ñu jëm incha allahu taala moo tax cheikh doose yéppam ci azkar yi tamay awraad yi ñu boole ko sunuy julli juróom di ko teewlu nañ ko war a teewloo ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ëllëgee ñu xam kan mooy kii Ceerno doon tagge nii te mooy barzaqul barazix taajul arifina sultaanul awliya ba muxtaar si la jàngale ci tey ci suba joxe ci misaal moo xam ni man daf ma daaneel ci comportement comportement wu taalif bi ci kanamu sëriñam foofu la tarixa bi tàmbaleek yow sëriñ Cheikh dañ ko laaj ni ko ndax nit mën na nekk jullit te du bokk ci benn tarixa mu ni sañ na ko sañ na ko waaye uniforme bi boo ko xësee ba jël kenn neexalu la discipline yi mu la laaj da ko koy jox ah yaa ko jël kon lu mu la laaj rek jox ko ko Pape Mokhtar ni indi misaal moo xam ne ña fa toogoon ñëpp xam naa ne la na ma loola yëngale noonu la leen yëngale mu ne portable am sonné mu wuyu nee na Thierno ngi toog ci kaw fauteuil bi ci néegam sol mbaxanaam mais ba mu àddoo muy Thierno Mouhamed Bachir ba Moxtaar ne na ci saa si Thierno wàcc summi mbaxanaam jublu xibla allahu akbar di wax ak koo xam ni mi ngi moom mi ngi fii kookaa nga fële waaye xoolal foofu xoolal boobu xoolal loolu hmm? est-ce que li ma nettali yëngalu leen hmm? Hmm? mi ngi toog ci kaw fauteuilam fa tabarakallahu sol mbaxanaam mu wuyu nee na baat ba jib di baatu Thierno Mouhamadou Bachir nee na mu wàcc ci saa ci suuf yemu ca mu jublu xibla yemu ca mu simi mbaxanaam teg ma ne Paa Moxtaar nag yow del jàngale yi teggin nga xam ni boo ko amul doo mën a duy ci sa sëriñ Mm-hmm. fa tabaarakallah sunul xaaliqiina muy lu ñu war a xam war ko mën a jariñoo imam xaaji mouhamadul muxtar tin daaneele fu am solo ni Ceerno nga wax <laughs> mukk fa tabaarakallah sunul xaaliqiin man de na ma ko xame woon booba ba tey noonu te dafa naa ñi fi toog ñëpp it noonu ah Cheikh Ahmed Tidiane doy nee ni doo fuuri teg ci fa tabaarakallahu sunul xaaliqin waaye nag yàlla subhanahu wa taala ku mu jaalale ca mbàndi leeram ya fa tabaarakallahu sunul xaaliqin doo doon di sotiba doo fuuri bañ lay laaj ñu lay dugalaat ci mbandi di la suubaat fa tabaarakallahu sunul xaaliqin yàlla nu yàlla nangul yëpp ci dara yonent alayhi salatu wassalam man nag ñu may mama netali fi li la doon si jotay bi yépp la koy ndokkelé ma bëgg sunu woykat yu neex baati tabarakallah li may way ni buñ ko mëne mokkal fu ñu wayé li ceerno way ñu way ko ca mën naa ni mën naa ko tudde taqriz maanaam ndokkeel basiit la nag basiit la may dellu seeti bi àwnillaahi xaaliqinaa di woy safina fm di gaalu Cheikh Omar بشيرنا وارث من جده may dellusee ti bi àwnillaahi xaaliqina di way Safina FM di gaalu Cheikh Omar daaray ñagas juri gaayam zawiya ko jëmmal jur na safina tuuti veeg daaru Cheikh Omar. Bashiruna. warisul an jaddihi بشيرنا وارث عن جده عمر daaray ñagas juri gaayam zaawiya ko jëmmal jurna na safina tuuti veeg daara Cheikh Omar ba yàlla woon ndànd foy foy dara yi ru ko woon xamidu xëy teg baraagam tudde cheikh omar basiruda warisul abidina umaru basiruda warisul abidina umaru woon ndànd foy foy dar yi ru ko woon teg baraagam tudde cheikh omar bashiruna wa rasulna andadi umaru bashiruna wa rasul andadi umaru gelaw fararar buy taw mu naan yërërër wuy bañ ya naan wererer cerno bale alala bashiruna warisuna an jami'i umar yaqdiruna warisuna an jami'i umar ba yàlla woon ndand foy foy dara yi ru ko woon xaamidu xëy teg baraagam tudde Cheikh Omar bashiruna hmm. warisul abnati yabi Umar bashiruna warisul ngelaw li naan fararar buy taw mu naan yërërër way bañ ya naan werereer cerno bale nak umar bashiruna warisuna abdabi umaru bashiruna warisul abdabi umaru coow li ni kur jolli jëm kaw bañ du ci dal cerno bashir dugg fi ñaan ci ke cheikh omar bashiruna wa rasul adabi ubaru bashiruna wa rasul adabi ubaru ciow la ni kur jolli jëm kaw bañya naan du ci dal cerno bashir tok fi ñaan ci barke Cheikh Omar Bachiruna warisul anjabi umaro Bachiruna warisul anjabi umaro safina xaj ñëw juree mel leen yeneen na ngi ñëw Bachiru Baan di ko jooweeg bëgg Cheikh Oumar bashiruna wa yusul an kabiru ukaro bashiruna wa yusul an kabiru ukaro safina xaj ñëw juree mel leen yeneen ñu ngi ñëw bashiru baan ki ko jooweeg bëgg Cheikh Omar Bachiruna warisul annabiyaa Omar Bachiruna warisul annabiyaa Omar kon Cerno Hamid Yerobaan santal sa cant nee na jalañ Cerno Hamid Yerobaan sakk cant na jalañ cerno xamid yero sakk cant na jalañ sëy tiisi xol ni weles bijaahi cheikh omar bashiruna warisun annabiha umaru bashiruna warisun nga sa mbir ci mbiri bashir mu wee rimbiram ci biir biir mbiri fuuti yu du Cheikh bashiruna warisul loo daan janax dem na loo daan ñoddi ñëw nga taxaw dëddoo ko àdduna ji jubloo ko Cheikh Omar bëgg ñu hmm. loo daan janax dem na loo daan ñoddi ñëw nga taxaw dëddoo ko àdduna

بشيرنا jullit dafay dëddu biir ak biti at duna ji te jublu yàlla bu wér jubloo ko Cheikh Omar bashiruna hmm. warisu an jadi Omar bashiruna warisu an jadi Omar jullit dafay dëddu biir ak biti ar du na ji te jublu yàlla bu wér royee ko Cheikh Omar bashiruna hmm. ورجل النبي أمر بشيرنا ورجل النبي أمر tëral te bul daanu doo kuy daanu baan taxawal mbër day taxaw aka daan ni mbër ma Cheikh Omar bashiruna walisul am jandi rahmana ubaro bashiruna walisul am jandi ubaro dëral tebul daanu doo kuy daanu baan taxawal mbër day taxaw aka daan ni mbër ma Cheikh Oumar bashiruna hmm. warisul aljadi ubaro bashiruna warisul aljadi ubaro doo daanu yàlla nanga nga ab jël wàcc ci bu wér ub jépp làmba saxoog cofeel ci Cheikh Omar doo daanu yàlla nanga waat ab jël wàcc bu wér ub jépp làmb saxoo cofeel ci Cheikh Oumar bashiruna warisul an jaddi ali kuy xintewoo yitte gis fuuti yu mag ñi ne na jàkk ceeru Bachir muy mel ni xool nga Umar. Bachiruna. Hmm. warisul anjati. ami umaru. Bachiruna. warisul anjati umaru. kuy xintewoo gis fuuti yu mag ñi neeneel jàkk cer. no Bachir muy mel ni xool nga Umar. Bachiruna. Hmm. warisul anbiya. yàgg Umaru. Bachiruna. warisul anbiya Umaru. uhibbu man. bëgg naa. tallaahi man. sopp naa. Bachiru maam Muntaqa mooy doomi Cheikh Umar. Bachiru naa. wali sunu ak jabi umaru. Bachiru naa wali sunu ak jabi umaru. Uhibbu man bëgg naa tallaahi man sopp naa. Bachiru maam Muntaqa mooy doomi Cheikh Umar. Bachiru maam warisu la am jabbi Umaru Bachiru maam warisu la am jabbi Umaru. Jazaaka rabbuka jaajëf gongo cer na Bachir mbiite te ma dem bay niru sax ak damu. yaa watani Sénégal damul ci Cheikh Oumar. Bachiruna wa rasulu alin jadid Oumar Bachiruna wa rasulu alin jadid day dema dem bay niru sax ak demu yaa watani Sénégal damul ci Cheikh Omar. Basiiruna wa rusul an jaddi Umar. Basiiruna wa rusul an jaddi Umar. Allahu akbaru jàlla rabbu yaa samadu yow yaa nu may xéewaleenu صب شيخ عمر بشيرنا ورسول عن جدي يعني عمر بشيرنا الرسول عن جدي عمر الله أكبر جل رب يا صمد يا ويا نميت حولينه صب شيخ عمر بشيرنا ورجل أمجد عمر بشيرنا ورجل أمجد عمر لا لك شبهن إلهي لك نيل نلا يولي لخيت جنت أكيد الرب شيخ عمر بشيرنا وارث الأمجد يحيي عمر بشيرنا وارث الأمجد يحيي عمر لا لك شبهن إلهي لك نيل نلا يولي خيتي تكي خيول رب شيخ عمر بشيرنا وارث الأمجد عمر بشيرنا عن الأمجد عمر صل على أفضل الأكوان سيدنا محمد سنگ بانگوك سنگ شیخ عمر بشيرنا ويزل عن جدي عمر بشيرنا ويزل عن جدي عمر صل على أفضل الأكوان سيدنا محمد sang baa ngoog sangu Cheikh Umar bashiruna wa insul amidati Umar bashiruna wa insul amidati Umar wa alihi wa ala ashabihi al-kurama Usmaan ak Aliyu Abu Bakar أك عمر بشيرنا وعز محمد أبي عمر بشيرنا وعز محمد أبي عمر وآله وعلى أصحابه الكرماء عثمان أك علي أبو بكر اك عمر الله ورسول اللهم صل على سيدنا محمد ومو وداني دوم سيبريز تيرنو ومو حالا هن بوري تيرنو اي موجيري تيرنو ومو يما هن تيرنو من تيرنو محمد البشير kono non wattande jimol gol fof omo gasnire dum e mawlana cheikh alhaji umar alfouti radiyallahu ta'ala anhu gille makko ɓeydima feeñde e yidde nde o yiɗi ceerno hamidou yeroɓano nde wonno sa yiɗa neɗɗo o jarantama hay hunde enen foof eɗen gandi wallifade e windude ha ko tengti e ɗemgal jolfe ballifoɗa hen jima ɗum e bahru mo gandanɗa hoore maɗa ko basid wayani sellude wayani yuɓɓude dendagal ko sohlano e, e bahruji ɗi foof ndendina ɗum ha hawra jima ɗum wadde mo jimɗa o bandiraɓe eɗen gandi aɗiɗi on lii day tegtal day wane cofeel gi dox sa diggante ak no Hamidou ndax ni way jafe rawatina ko way ko suñu làkk yii nii nga tëgg ci ci baxaru boo xam ne bu leer naññ la billaahi ku la dara doo ko defal loolu yàlla yàlla fay la mbokk yi bandiraaɓe alaa ko heddi so wonaa ko keddoro ɗen alaa ko keddoro ɗen so wonaa ko umminnoo en وقنا ان غاليجي من وقنا ان بسموجي من وقنا ان لاتي من اردن نوتا دن دانغو شارنو هاميدو ان بينو نوتا دن دانغو شارنو هاميدو وني نوتا دن دانغو شارنو محمد البشير نوتا دن دانغو شارنو محمد البشير كوكانجم وني نوتا دن دانغو مولانا شيخ الحاج عمر الفوتيو نوتا دن دانغو مولانا شيخ الحاج عمر الفوتيو كلهم وني نتاد دانغو مولانا سيدي الشيخ رضي الله تعالى عنه نتاد ندعو مولانا شيخنا أحمد التجاني كلهم وني نتاد ندعو مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتاد ندعو نلاد الله صلى الله عليه وسلم حقيقة في حقيقة كلهم تيجي وني نتاد ندعو الله تبارك وتعالى لو نقول الله إيه وننو إنن فوق يا أيها الذين آمنوا استجيبوا lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhikum falillahi alhamdu wal minna nde ɗo jonde ene wurtina ɓerɗe nde ɗo jonde ene ɓeyna limanagal nde ɗo jonde ene ɓeyda gilli nde ɗo jonde ene ɓeyda kadi gondigo fi sabilillahi lillahi min allahi ilallahi fillahi yo allah yoɓani en ceerno hamidou moƴƴere yeew ɓooy noddude eɗen ɓooya notade kala ko allah wawnimo hande yo allah wawnuma ko ɓuri ɗum janggo mi wiyata kala ko allah wawnimo hande yo allah wawnumo ɗum mo wuuri ala woɗɗi nde wonno jogiiɗo o ko jogii kone heewi ala ko hattojini heen sowona omo yiɗani en omo yamiri en en ñaagomo ñaagoro ɗen mo fodde no jiɗɗen ñaagoraji ni ceerno kala ko mbawɗa hande yo allah wawne ko ɓuuri ɗum janngo kala ko dañƴa hande yo allah rokke ko ɓuuri ɗum janngo so min mbi emin dewo emin duwonoma ɗemde amin en mbawi wadde cat te min jiɗa wadde ma catu yalna yallah samallah boppam Amen. yal na yàlla aaral la boppam mbokk yi ñu beesalaat pas-pas yi beesalaat toogaay gi xam ne lenn rek moo des mooy ki taxoon ñu fas suñu lal ya bàyyi njaboot ka ca gannaaw ah jël ay oto fa tabarakallahu ñëw fii ci Scat Urbam wuy si woote Ceerno Hamid Yoroban bi ngir lan ñu seet ban kaas la ñuy nandal tey ci fa tabarakallahu sayyidi cheikh radiallahu taala anhu suudu sandaaji on calminaama ceerno mouhamadoul bachir on calminaama on juuraama ceerno zacharia ousmane on calminama on juurama ceerno aliyu diallo on calminama on juurama baba sambatal on calminama on juurama dendagal yiɗɓe ceerno hamidou gorko e debbo suka e mawɗo a salminama a juurama ala ko heddi sowona min jotto enen foof keɗoɗen ko wiyete ko herawlu mbaɗen herawlu o wi ceerno demba diamoɗo dental kamɓe fof en calminiɓe ceerno wi hay goto woppaka no mbirɗen gila nani ni limaɗo emo limaka fof ceerno yiima ceerno oumar sall a fa tabarakallahu ceerno salmini on juurima on weltanima on gila nden ha hande oɗo no jooɗi to dali for ane ɓe garduɗaɓe fof dumga lawnaɓe ko noon caroynaɓe pikinnaɓe leyɗe dakar ɗe fof no ceerno wiruno nane ala leegal ngal limata e dakaru so wona neɗɗo ummima toon ari ɗo e enen haa tenti e noon e leegal escat irbam eɗen jeƴe ceerno ne yetto on ne jaara on omo mana on omo yaafno on e denndaangal haqqeeji gonɗi e baŋnge koddiigu ɓesngu makko e almuɓe makko inchallahu taala o jogontaa ko hay gooto haqqe kono noon koddiigu ene sewi omo yetta on omo manta on omo jaara on omo ñaagano on allah tabaraka wa taala kala ko allah yiɗimo e moƴƴereeji gila ene laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ha e ceerno makko ceerno mouhamadoul bachiru kala ko dañi heen yo allah fecci on heen ceerno mu ngi sant ñëpp waaye mu ngi sant waa Scat Urbam fii nga xam ne fii la ko yàlla toogloo fii nga xam ne fii la ko yàlla may mu fi yeew di fi fanaan di fi jàngale di fi fa tabarakallahu tarbiya taalibe yi di leen fa tabarakallahu sottil ay leer mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla mboolem lu mu mun a am ci yàlla ci yonent bi ba yegg ci sëriñam ceerno mouhamadul bachiru mu ngi ñaan yàlla bu mu leen ëppale bu mu leen ci ëppale dara lum ci am yàlla na ngeen ci am yàlla na ko yàlla wesaare ci suñuy njaboot yàlla na yàlla wéral ñu feebar ñi yàlla na yàlla faj soxla yi yàlla na yàlla def ci poos yi dara yàlla na ñu yàlla sàmm ba kenn ku ne delluwaat ci sa kër fekkaat sa njaboot ci jàmm ci barke alquraanil azim waaye ke ci barke salaat alfaatihi salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno wi caggal yettude allah e julde e nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam gannaaw sant yàlla julli ci sang sangi sallallahu alayhi wa sallam e ñaagaade welu ya allah yoowon e ceerno men cheykhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ɗi ñaan yàlla tabaraka wa taala yalna yàlla beesalat ngërëmam ci suñu sëriñe mawlana sayidi cheikh ahmada tidiani radiallahu anhu e denndaangal halifaaɓe makko e denndaangal muqaddameeɓe makko ak mboolem halifa sayidi cheikh radiallahu taala anhu aki ay aki mboolem muqaddam sayidi cheikh radiallahu taala anhu e denndaangal almuɓɓe makko ak mboolem taalibi sayidi cheikh radiallahu taala anhu yo allah wattu en heen yalnañ ci yàlla boolee eɗen ñaago teddungal allah e moƴƴere allah yo ɓeydo juuraade e ceerno men mawlana cheikh alhaaji oumar alfoutii radiallahu taala anhu ceerno nene ñu ngi ñaan mbaaku yàlla ak teraanga yàlla yalna dolleeku di sotteeku ci suñu sëriñ mba mawlana cheikh alhaaji oumar alfoutii radiallahu taala anhu eɗen ñaago mawlana tabaraka wa taala yo allah ɓoynan en ɗo fittandu ceerno men ceerno mouhammadoul bachir taw ene wondi e cellal ceerno nene ñugi ñaan yallah tabaraka wa taala yalna yallah guddal fanu ceerno mouhammadoul bachir te mo andak wir <coughs> ceerno wi taggal ɗum noon o salmini bandiraɓe julɓe ɓe fof o juurimaɓe e oɗo jamma moƴƴo ceerno nena gannaw loolu mu ngi nuyu di ziyaara mboolem jullit yi fi teew ci guddi gu tedd gii omo ñaagi en duwaaw omo ñaagi en yaafuya e jonde nde mu ngi sàkku ci ñun ñaan waaye it mu ngi ñuy jéggalu ci jotaay bi o wiinde wonnoo won arɓe gila subaka haa jooni ko e jonde wootere tan jooɗi ceerno neena am na ñoo xam ne dippi suba ba tey ñu ngi fii toog ci benn jotaay rek la ñu toog ba tey o wii omo yetti nana en salminaangu jinnaaɗo meeɗen ceerno men giɗo meeɗen hono ceerno mouhammadul bachiru muntaqaaɗaa ha cheikh alhaaja umar alfoutiyi radiallahu taala anu ceerno neena mu ngi ñuy jottali suñu nuyu sëriñe suñu wayjur suñu xarit suñu soppe di ceerno mouhamadul bachir muntaqa daha cheikh alhaaja umar al fuutiyu radiallahu taala anhu ceerno mouhamadul bachiru ene andina en o mana wondi e meɗen ko suuɗi e ko feeñi ceerno nena ceerno mouhamadul bachir mu ngi ñuy yëgal ni mu ngi bokk nekk ak ñun ci lu nëbb ak lu feeñ kadi omo duwono gooto kala e meden ko yidi ɗo alla e nelaaɗo mudum sallallahu alayhi wa sallam ɗo maulana seyidi sheikh ahmad tijani radiyallahu taala anhu ɗo mawlana cheikh alhaja umar alfouti radiyallahu taala anhu e dendangal haajuji mudum fof yo alla wadan dum ceerno nena ceerno mouhamadoul bashir mu ngi ñuy ñaanal kenn kuñe kenn kuñe ci ñun limu bëgg ci yàlla ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu sëriñ ba mawlaana sayyidi cheikh radiallahu taala anhu ak suñu góor yàlla bu baax bi di mawlaana cheikh alxaaja umar al fuutiyu lu mu bëgg ci yàlla yàlla na ko yàlla defal loolu enen ne kadi eɗen nduwono dendagal ardiɓe men ɓe pop yo allah yurmoɓe yaafoɓe ceerno nena miki noon ñu ñu ngi ñaanal suñu way dawlu yépp yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen wi enejeya ko jaggi ɗo dalifoor naaɓe ɓe ha o haala ngol ɗo konngol e jeese maɓɓe neena bokku na ci li tax mu teye fii daa'ira dalifoor ba mu wax kaddu gii ci seeni kanam ñu sooga yeeweeku e siftindeɓe hanki so ceerno ahmadou diallo ariino ɗo ko kanko udditta jonde nde ko kanko uddata jonde nde ceerno nene girma fattalilen dembu kiñuy wax ceerno ahmadou diallo rahmatullahi aleyhi jotaay bi walla yu mel ni bunci ci musaan toog mooy ubbi jotaay bi te yit moo koy tëj o wi wonɓe ɗo ɓe fof ko seedeji so udditiino ceerno ahmadou salif mbaye kañum ne weddoo heen konnguɗi muɗum neena ñifi nekk te ñu min daara di ñépp seede lañu ci li mu wax bu waxee ba noppi ki ñu wax ceen ahmadou salif moom tamit mu teg ci ay kàddu o wii yidde neɗɗo e yeeso muɗum ene waɗi fayide de kono yidde neɗɗo o yiɗan ɗum dendaangal ɓesgu muɗum e caggal muɗum ko ɗum ɓuri waɗde fayida ceerno nee na bëgg nit ci kanamam loolu am na solo te it baax na waaye bëggal bëgg nit ki bëggal ko tamit mboolem njabootam ca gannaawam nee na lii nag moo ëpp solo ceerno wi en njii e mawngu maɓɓe ceerno ahmadou salihu mbaye yo allah ɓooynu ɗum ɗo ceerno ilimane diallo yo allah yurmo yaafooɓe kono kala ɗo jahannoɗen ko enen e maɓɓe jaadata ceerno nena ceerno ahmadou salif mbayi yalno yallah guddal fanamte mum yaggal ko fi ceerno iliman diallo yalno yallah be salat yirmande ci moom ak magel gi magel ceerno nena fu musana dem ñun ak ñoom ñooy ànd o wi seedeji muɗum ene keewi kono hannde ɗo ɓuri wonde seede muɗum ko jegi jawara e ceerno oumar sall oɗo nee nañ ñi nekk seeda ci lii mu wax bëri nañu de waaye ñaar ñii mu tudd seeni tur ñii gën nañu nekk seeda ci wax yi nga xam ne moom la wax e dendaangal daaira safina ɓe njaadan no ɗen ɓee fof ak mboolem daaira safina ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo doon ànd ceerno wii eɗen nganndi ɗoo e mali wonaa ɗoo e thies e ceerno nee na xam nañu fii ak mali du diggante dakaru gi ak tees bi ceerno wi ɓe njaadi toon ko wonaa goo ko wonaa ɗiɗi ko wonaa tati ceerno neena annd nañu ba mali ludul benn ludul ñaar ludul ñett ceerno wi somi ummiima ɓe ngummoto somi jooɗiima ɓe njooɗoto ceerno neena saa yuma jogee ñu jóg waaye saa yuma tooge yit tamit ñu took ceerno wi goɗɗum hen ni o yahat ha o yurmode o wiya ɓe jooɗo de ɓe mbiya ala ceerno minen kay min jooɗotako ceerno nena leg leg dey senti ñoom coono ba mu yërëm len mu ne leen toog leen ñu ne déedéet ceerno ñun kay feeg yaa ngi taxaw dañuy taxaw ànd ak yow o wi omo siftara hitaande ne ceerno mouhamadoul bachir ari toon e ngal jaɓɓungal mawngal ngal ɓe jaɓɓatono ceerno basiru e ngeenaange e kinguleeki kono ko kamɓe ngadi toon ceerno nena maangi fatteliku atmi ceerno mouhammadoul basir du ñaw foofu ñu koy teerodi ko gatandiku ci tàngorgi nekkon ngoogu ak naaj ba waaye ñoom ñoo fa jiitu min ɓe jaɓɓoyi ceerno ko ɓuri kilooji sappo e joyi ñu dem teeruji ceerno lu ëpp fukki kilo ak juróom ceerno wii ɗum noon ko yidde waɗi ɗum ceerno ne mbo gisee li yëpp cofeel rek moo koy def ceerno wii ɗum waɗi ne ngarɗon naane o wii on onon ko onon ngoni njaati geeɓe on ngonaa hoɓɓe ceerno moo looloo tax sank ceerno len yeenayi njaatigi fii tey yen doolen aygam ɗum waɗi o ñaagii allah tabaraka wa taala yo allah accit on ko juuti moo tax ceerno ñaan mawlana tabaraka wa taala seen andi gi yalna koy yag yàlla yàggal fi lool o wii ɓesngu ilimane diallo gila alhaji malik haa ɓurɗo famdude yo allah wat e maɓɓe barke nene njabootu gorgi alhaji e, ilimane diallo la tambale ci alhaji malik ba ci ki gën a tuuti yalna yàlla sotti ci ñoom barke o winani tan omo namdo ceerno sambo ko kanko rokkunomo moy laaj sank kenn ci njaborki ndax mom moko mayon koku ko ɗo o janganno qur'ana fiila ɗon jange alqur'an o wi ko ɗo yidde wawi haadde ceerno nena cofeel fi rek le muna yem ceerno wi nganni en noon oɗo jamma ndu wono en mo e nder jamme ceerno nena ñu daadi nag fas yeene ci guddigi ak ci barke guddigi ñu ñaanal ci góor yàlla boobu woni duwa wuuji ɗi gudditirɗe naane ɗi mooy ñaan yi nga xam ne moom lañ ubbee woon jotaay bi sànq ndewnu ɗen heen bani meeɗen debbo soxna aichata ba to mboolo biraan ñu daal di ci toftal suñu jigéen muy soxna aichata ba fa leete mboolo biraan oɗon bandiraɗo debbo kanko adi darnude daa'ira wonande meɗen o wi daa'ira mboro birano o wonande men kanko adi ɗum wadde ceerno nena suñu jigen jooju mo jekk sos daa'ira mboro birani mbi defalni ko ñun o wi gorgol gorgol makko ene wiyeteno sala guuro amona ben bajjen buttudon sala guuro gorgol mum souleyman ba nena bajjeno souleyman ba e mamadou ba ak ñoom mamadou ba ne o wi gile e ɗen caaroy ceerno neene deppi ñu ngi caaroy o wi gammu men gadano 86 87 suñu gàmmu gu njëkk 86 87 kanko adi addude enveloppe o waɗi heen hadiya makko o wii ko ma inde makko haalee daane dow ceerno neene mum moo njëkk jël enveloppe def ci hadiya ñu ne nañ mu ne nañ ko jox ceerno te it nañu wax turam ca kaw haa ngummiɗen toon ngarɗen ngaa ceerno ne ba ñu bàyyee ko fale ca caaro ñu ñëw fii haa waɗi sahaa gooto taw omowni ceerno nene damano di dem ba magel dikkal ko o renndini ɓesngu makko fof mu daadi mboole njabot gi yëpp rewɓe e worɓe goor ñi ak jigéen ñi ɓe ngarii ɗo ñu daadi ñaw fii o addi enveloppe makko mo daadi inndi enveloppe am o wii ceerno eywa mi ari mo daadi wax ceerno eywa ñawnaade o wii ngarmi ko ittude daa'ira o e juuɗam mbeɗa watta ɗum e ɓiyam oo ɗo woni accii ba mune tawi nag dema dikk jël daa'ira bi dindi ko ci samay loxo teg ko ci sama loxo doom ji di soxna acciba o wii mi o waɗiri noon o wii aywa mi halfiniima daa'ira ho ha yowma alqiyamat mu ne aywa yëkkatinaa daa'ira bi teg naa ko ci say loxo dénk naa la nag dénk naa la nag daa'ira bi ba yowma alqiyamati o wii ɓooytaani e muuɗum o ruttii to joomii ko yaggu rek مدادي ويجي بروم سبحانه وتعالى دائرة أونا يا هاتير نونا دائرة بدوي ها إي دومون نادي بجامونوي passe وي مينيوم أحمد مختار إني وي جينب ركو أحمد مختار كتب جينب جينب عبدل kanko ta ba o o wi jeynaba o kanyum ne mi halfinima dairo mom tamit aisha mudadi daal di wax jeynaba mi yow wit dénk na la daa'ira bi nga xamne mom la ma sama wayjur denkon o wi e de lewru ut jawtundu ɗo kadi ebe guddidi whatsapp o haali hen haalaji jurminidi ceerno neena lolou ci taxawayu weru ut bi paase la ca gannaaw loolu seen groupe whatsapp ba mu daa di fay wax ay kàddu yu daw yaram yontere kadi fawtu yi heen kan kone o hawri e lajal ceero nee benn semaine moo ci daa di tegu moomit mu wuyji boroomam bi subhanahu wa taala ene jeyaa e konnguɗi makko cakkitiiɗi ceero nee bokkuna ci ay kaddam yu mujj o wii ɓe ndadode haa tiiɗa nangon daa iro muye mu ne leen aywa takku leen ba dëgër te ngeen teye daa'ira bii o wii kamɓe pop ko ɗoo ɓe kiiri hannde ñoom ñëpp fii la ñu weeye seen guddigi tey ceerno wii oon noon baaɗo noon duwanaade ɗum ko waajib ceerno neene nag jigéen ju am taxawaay jooju nag ñaanal ko nag waajib la o wii limtude ɗee ɗoo geɗe wona simmitaade alaa ko hoddiro allah tan ceerno neena tuddaat mbir yimmel ni di ko fàttiliko du darra ndogalu suñu borom bi subhanahu wa taala rek moo koy waral o wii hannde oo ɗoo saha fonnoo tawdemo ko kuñakaari ceerno neena tey ci jamono jii woron na ko fekk fële ca kuñakaari ci biir mali nde wonnoo ceerno maɓɓe gadiiɗo ɓe toɓɓande baa o hawri e lajal ko ɗeɗo balɗe seeno sérine gulel jekk bindal ba mu ngi genna aduna ci fan yii woni ceerno makko woni mawniko woni sehil makko woni fofof makko ndi sériñam ndi magam ndi xaritam ndi leppam omo wiye ceerno yahya tal muy ceerno yahya tal menn kala nde ɓe jiidiri mawo siftinamo sa yo ñu gise dana fàttali ceerno o wiye ceerno min de ko nene ma halfinno kam mona mono ceerno mande sa yaye momola denkon hoto welsudemi de ceerno buma saggane de ceerno daadi ceerno jaabomo wiyamo ala min kay mi wawa welsidadema ceerno ne ko man kay munumala saggane o wi nde ɓe jiyodiri foof ko maɓɓe toñodiri ceerno nden sa yiɗi gise rek deñoy daadi kalanta sen mbir onne kadi notima joomum ko ɓoyani e ɗe balɗe koko yiɗ wuyino boromam bi subhanahu wa taala ti fan yi o wi duwanade on ko duwanade hoore makko ceerno nene tamit ñaanal jëmmuju mel noon ñaanal boppam la rek so tawi o duwanama sabu jaggude mo duwa o omo haani nanngude kadi omo haani ruttude duwa o ceerno wi haɗimo yaade janeyse ceerno yahya tal ko geɗe tati ceerno nene lakkotorede mali ca deju ceerno yahya tal ñettimbirla o wi googo o heɓani yamiroore e ceerno min ceer mouhamadoul bachir benn bi njëkk mooy jotul ndigal ci ceer mouhamadoul bachir ngir mu dem o wi kanko de kala ko ceerno hokkanimo yamiroore o waɗata ɗum moom de nee na moom lu ko ceero mouhamadul bachir joxul ndigal du ko def kadi o namdotaa ko heen ceero mouhamadul bachiru yemiroore te yit du sakku ci ceerno mouhamadul bachiru ndigal omo jappi nofuru makko re tan nee na dama dama lal rek sama nopp rek di déglu so ceerno bachiru wii ko subako ko subaka bu ceerno bachir nee suba la o wii ko suba rek la o wii so ceerno wii koki hiiɗe koki hiiɗe bu ceerno ne ngolla ngolla so ceerno wii ko jamma kadi ko jamma bu ceerno ne guddile nena guddi regla o wii ɗum ɗo ene jeeya e ko haɗimo yaade ceerno nene li bokkuno ci ngantinga xam ne moo ko tere dem o wii toɓɓere toɓɓere ɗimmiire nde ñaareelu poñbi ko oɗo jamma moodi guddi gii o wii jamma o ne mawni e makko kono kadi huccondirde e jeese meeɗen tedduɗe ɗe ene mawni e makko ceerno neena guddigi reyna ci moom lool waay yit mujjanog suñuy xarxaru kanam yii loolu yit reyna ci moom o wii toɓɓeere tata ɓiire nde neena ñetteelu tomb bi o wii wonnooɓe sababu ha o ari ɗo e wuro wuro ngo ñe nekkon sabab ba mu ñëw fii ci dëkk bi omo wondi e maɓɓe gondigal moƴƴal yo allah dogal ñu nekk nekkingo rafet ngoni ɗo jaatigueɓe makko ngoni ɗo foof makko ñooñu daadi fi nekk ay jaatiguem nekkal ko fi lepp ene jeya hen ɓi mawni ko kadi ko ɓi ko bokkuna ci ko xam ne doomu magam la tawi doomam la ene wiye aissata moussa ɓan mu ngi tuddoon sohna aissata moussa ɓan o wii kanko e ceerno yahya ɓe ndaɗondirani kamɓe duttidi e joomiɓe mom ak ceerno yahya mimo tuddu leegi rawante wuñu ñoo bokko ayfan wiñu wiide sen boromɓe subahanahu wa taala kadi fof ko e juuɗe makko wonno te yiɗ wallu tahawaygi yépp ci ay loxom la nekkon o wii ko ɗum de haɗimo yaade mali nene lii muñu nettelli muñu wax moo ko tere dem mali so ɗum alano o saha tawatama ko mali buli amul won jamono ji day fekk moom mu ngi mali ɗu ceerno wi so ɗum yawti e ɗemgal ceerno mouhammadoul bachir enen fof omo wiya en en jaarama ceerno nena gannaaw loolu ci lammiñu ceerno mouhammadoul bachir ñun ñëpp mu ngi ñuy jaajëfal debbo heen gorko heen suka mawɗo heen góor ak jigéen mag ak ndaw o wii gila e leeɗe ɗe pop e dawairuuji ɗi pop ɗo ngummi ceerno wii on jarna on jarnaama ceerno neena si quartie yëpp ak fu mboolem daa'ira bàyyee ko ceerno neena ñu ngi leen di jaajëfal o wii noon haa tengti e musidɓe ummiiɓe guure e gure ha tenti e wuro meɗen wiyetengo dumgo lawɗo ceerno nena rawatina nak mbokki nga xam ne daña bàyyi ko dëkk ak dëkk rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi ko fële ca dumga laaw ɓe njeeyi en teddungal ɓe njeeyi en ndimaagu ceerno neene jaayante nañu ak ñun ci teraanga jaayante nañ ci ñun tamit ci wàllu tamit fa tabaracallahu dereet ɓe njeeyi en kadi gilli sabu allah ceerno nee na jaayante nañu ak ñun cofeel ngir jëmmi yàlla yoo allah rokku en yoɓondirde e maɓɓe e dow leydi yal nañu yàlla wërsëgal ñu fayante ak ñoom teraanga gii ci kaw suuf keɗondiren haala kaani waɗi fayide de bi jaahi rasulillahi sall allahu alayhi wa sallam ceerno wi ɓe ngari e jam yo allah waɗɓe ɗo e jam haɓe koota e jam ceerno neena ñëw nañu ci jàmm waaye it yàlla nañ fi nekk ci jàmm ba ñu ñibbiwaat ci jàmm bi jaahi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ceerno wii yoo allah rokku en hawrude ɗo o sahaama wuuri kadi yàlla nañu yàlla may ñu teewewaat fii neke ni déwén gooto e meeɗen fof ene ɓeydii to baŋnge allah ene ɓeydii e aduna muɗum fekk kenn ku ne ci ñun mu ngi yokk digganteem ak boroomam bi tabaaraka wa taala mu ngi yokk ci wàllu aduna bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ceerno wi so ɗum ala kala ko haaleteno haalama ceerno nee na bu loolu noppee mboolem li ñu waroon a wax wax nañ ko o wii hay so tawino haala ka haaɗiino ɗo miñii ko ɗo nee na waxtaan bi yemoon na ci rakkam jii giiɗo makko sehil makko ceerno ibrahima sow haritam soppem di ceerno ibrahima sow o mo ngannduɗa ko hafisul qur'ana woni ko denɗo qur'ana kadi ko jannginowo omo renna ɓiɓɓe julɓe yallah mayno ko wottuna alqur'an wawi de janngal dow mo adamay badilen wottulo alqur'anul karim ceerno wi ko noonne kadi omo waɗa alluwal tafsir alluwal tafsir payodin ngal no fewi noon yittamit ley ɗe fe tafsir tafsir bo jaari on kanko daɗimi gandal fof ceerno neena mommoñu sut xam xam kono noon teddungal e needi ceerno wayenene likolal moye teranga ak yar ceerno wi kala nde o uddita tafsir o mo o tintina ceerno kala de tafsire o timmi kadi mo o nodda ceerno o timminamo on o tintinamo ceerno ne sa yudeme ɓay tambali tafsire ɓe nde koye wo mo yegal ko waye tafsire ɓe ɓudeme ba noppi yit dey wo ceerno mo yegal ko o wiye ceerno mi yaafi mama e arde mo daadi wax ceerno jiggal naala nacci déplacement ɗi so wona sone duwe tan gara ludul ni buñu deme ɓay ñaan nga daadi ñëw o wi ɓe mbaɗira noon ceerno ne ñu daadi defee noonu yo allah juutnu ɗum yalna yallah sahal loolu o wi hay sunno haalaaji ɗi fof kaatnoo ko ɗo haala makko ɗo fof timme ceerno nen doon tane waxtaani yëpp yemoon na ci kàddum yi rek waxtaan gi doy na o wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno mouhamadoul mouhtar silla noon it ceerno mouhamadoul mouhtar silla moom it on ne haala mum tan yoni kooku yit waxam rek doy na omo haala bange zahir omo haala bange batin ndax Pape Makhtar day waxtaan ci wàllu zahir waxtaan ci wàllu batin omo haala bange shar'iyya omo haala bange tariqa omo haala bange haqiqa dana waxtaan ci wàllu shar'iyya ci wàllu tariqa ci wàllu haqiqa on tan so yimbe yimɓe jondininooma e ko halno ko heƴi ceerno neena mom moom rek it bu nit ñi doylu won ci limu waxtane doyna o wi sherif muhammadul mouhtar tin on ne yit chérif muhammadul mouhtar momit on halamum halaka koku waxam kenn waxuko o wi kanko mo ngannduɗaa yettode wodani allah walko allah fammini mo e nder khilasu zahab ko kanko tan allah fammi ɗum ceerno nee na sant ñeel na yàlla moom chérif mouhamadul mukhtar tin am na li ko yàlla xamloo dégguloo ko ci xilaasu zahab moom kott dong moo ko xam kanko tan alhamdulillahi rabbil alamina omo waawnoo jogaaɗe hiirde nde haa gasa moom rek ceerno nee na sant ñeel na yàlla munoon na téye guddi gi ba waxtu bi jeex o wi sinno wonaano sahaafo eɗen mbiyamo ceerno yoni ceerno yoni budul woon ni léeg-léeg ñoo koy topp di ko soññu di ko wax ne sëñ bi waxtu bi nga amoon jeex na de ceerno wi sinno ko sago muɗum taw ceer sérif mouhamadoul mouhtar tin so are haalde ummoto ene yaha bange funnaange ene ruto bange hirnaange ceerno nee na bu doon sagom moom bu shérif mohammedul Muxtaar tin di wax limu bëgg dal moy moy jobé di dox goz di delu droit di dem penku di delu sow o wii ko o ɓurata jamono joju lay gëna am rythme lol lol o ko hali e maulana sheikhana ahmad tijani ko tan e ko hali e allah sallallahu alayhi wa sallam ko dum tan yoni تيرنو نينا لي وقت مولانا سيد الشيخ رضي الله تعالى عنه مو وقتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم لولو دوينا سك من النكدي ريب نوبي نيوغي ميكرو سانتر منين توتو نوبي ميكرو سانتر لو هامبين مباتا هن غمو وي هانغون تي جوغي بي غمو بي وي انن تان انن ادن باونو يوندي كينادي هن نينا نيون نيغا خامني نيو تاي وون ميكرو بي microcentral bi léeg-léeg di ci xaw a fa tabaarakallaahu loolu nee na buñ ñu ko joxoon rek ñun tamit ñu téye ko noonu rek o wiimantoɓe annabi o sallallahu alayhi wa sallam ceerno neena sang yu tedd yi nga xam ne ñoo doon tagg sallallahu alayhi wa sallam o wii kamɓe tan eɓe mbawno jogaade jamma o eɓe mantana en nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam konngol gootol ƴettaaka heen ceerno nena ñoom rek munon nañu teye guddigi diñu ba diñu jooɓel rasulillahi sallllah alayhi wa sallam diñu wayal sallllahu alayhi wa sallam ba guddigi jeex fekk yëkkatiwuñu benn kàddu ceerno wi yettoode woode ni allah tabaraka wa taala imam moussa gueye oɗo o mantata ɗum o duwonto ɗum ceerno nena sant ñel na yàlla tabaraka wa taala imam musa Gueye mi du ma ko gërëm de dama koy ñaanal yàlla o wi kala fathu مولانا شيخنا احمد tidiani رضي الله تعالى عنه مولم mawlana مولانا شيخنا احمد radiallahu رضي الله e عنه faate e كشف e ilham e marifatu بالله lu aju ci mbóot yi nga xam ne moom la ceerno tudd léegi yoo àlla yen endum yal na yàlla wërsëgal ñu cër yii amin o wii ko imam moussa gay haali e makko koo pëpp ko e imam moussa gay woni nee na mboolem kaddu yu rafet yii nga yëkkati askanele ko ceerno ceerno nee na ci yow rek la nekk o wii ko ɓe nganndondiri fay hannde ceerno nee na bi ñu xamante jëm tey o wiyatode woode ni allah ɗum ɓooyi loolu yàgg na o wii ko cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu waddi ɓe nee na mawlana sayidi cheikh ahmada tidiane moo leen boole hedde 94 95 nee na ca jamonoy 94 95 o yejjiti tigi tigi tigi hitaane de kono kam woɗɗaani ɗoon fatena atmi banlati ati waye moom soriwul foofu ndeen taw kanko imam moussa gueyi omo yewta ɗo radio dunia jamono jojo fekk yaa ngi waxtaan ca radio dunia allah waɗi ceerno wi ene jaggi radio dunia yo allah dogal ceerno ngi japp radio dunia o hawri e imam moussa gueyi ene fira diaw haratul kamal motombek imam musa gueye firi jawharatul kamal dum weli mono feewi cerno neena lolou dadi may neex lol o wi o wadi tan no jando wadata ni tan cerno neena ma dadi def ni ki nga xamni mbekte dikkal nako ni muy def rek ma dadi def non o wi وتاج نوري أويس وتويتم بدجوجي جل الإلا والمولانا شيخنا أحمد تجاين رضي الله تعالى عنه يا الله واللهم همي يندر إمام موسى جي مدادي دوغو تي ديغنت ماك بوروم مون يالا بودي امنا تير تي طريق بيغا خامن لا نيك يالنا ما يالا ورسغال دال ما داج امام موسى جي او وي بوران يونتر تيرنا نينا allah waɗi kanko imam moussa gueyi o ari e ceerno yo allah dogal imam moussa gueyi miiɗade ñewti ceerno omo wondi e biyeteɗo abdoullahi diallo e cheikh ka mo gi anda kiñowo abdoullahi diallo ak cheikh ka ɓe gari salmindemo ñu ñëw ndi ko nuyu ɓe gan eɓe gari ɗo yidde andinde ceerno sayidi jamal ariɗo eɓe jiiɗi o ara ɗo ñu ñewdi yegal ceerno sayidi jamal ñewna fiici sénégal ñewna fiici dakalu bëgguenañu mu yegsi fiici ceerno ceerno wi ayi ko ñaagino ko cheikhana ahmada tidiani ari hen ceerno nene gis nga li mu ñaanoon cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu fekkeena loola moo dini ñëwna si o wi sayidi jamal oɗon ko kanko rokkono yamiroore yoo fiiw nit rawda cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu ceerno nee na moom jamal googu moom la ñu joxoon ndigal ca sët ya na defaraat rawda maamam ja sayidi cheikh ahmada tidiane chérif radiallahu taala anhu allah hoddiri nde ngasi rawda o nde allah hoddiri ɓe gasni asde rawda o ko kanko nannanno junngo makko e nder rawda o omo membo holdo sheikhana ahmad tijani heedi e der rawdo biñu gasse ba nopi mom seydi jamal mi modan jël loxam diko duggal ci bil qabru bi di làmb falla la seydi cheikh ahmada tidiani féete ci biir bàmmeel bi o wi ha o mimi maam makko mawlana seydi cheikh radiallahu taala anhu o wi o man doyne ba mu làmb daj mamam mune sama mamangi ni fi la teud kadi ebe pilmadum ɗum te yit

hay gooto jillaani e maɓɓe so wonaa gooto musiɗɗo ene yettee caam jamano jooju ñuy liggey liggey googo kenn raxulti sutu cheikhana ahmada tidiani lu dul mbenn mbokk mi nga xam ne fii la nekk fii la dëkkoon mu ngi sant caam ceerno wi kala saha omo arannooɗo ceerno jamono juni daanna fi woon ñëw o wi o fuɗɗinooma wallifaade winndidde faccirde rima e jawahiral ma aani o itta ɗum e arabe o watta ɗum français mo daadi koye tuhol ci lugal arabiya mo defat ko français nde ɓe pilmi banda o biñi daade filme li ñu ɗon filme o wi ala fof ɗo adi hollede e aduna so wona ɗo henne nene biñu noppe ci lolu cassette bi amul fenn fuñ ko njëkka teg ci aduna bi lu dul ci kër gi o wi oɗon wiyete ko malik thiam sangu boobu ngi tudd haj malik thiam o wi oɗa nokku to ɓeyɗa dariɗo ko ɗon écrangé a o waɗano fee fawaje taxa falañude fon écran bidi setan lolo eh, imam moussa ne jooɗi enen foof eɗen jooɗi o wi imam wi ɗum de ne hulɓindi darde de imam moussa daadi wax ni a ah, yo limom ragalluna seeɗo de mete eɗen jogii heen yamirore est ce que am nañ ci ndigal kanko o nanta jolfe moom du dégg wolof mu daa o da o wi kala ko mbatmi ko cheikhana ahmada tidiane yamiri mu daa di wax ni man lu ma def lu ne cheikhana ahmada tidiane moo ma si jox ndigal o wi gila nden allah waɗi o anndodiri e imam moussa guey o o meeɗa waylade hay sahaa gooto ceerno neena ca jamono jooju ba tey la yàlla dogal moo xamante ak imam moussa gay waaye musul soppeeku benn yoon ba tey o wii kala moƴƴo moo yii o yiɗata ko ceerno ànda moƴƴoon ceerno neena mboolem ku baax koo xam ne imam moussa gay gis na ko lii doon bëgg-bëggam dal ak noflaayam mooy ceerno xam waajooju rek أوي هاي جوني جوني سو يلتي سو هوري أمو جوتان أوي أتاكو أرنوت لين ليك ليك لسو بنيو تاسون بو جينون داجاكو واجو باخرك داي وخني كاي نيو ديلو ولا سما خريت بي دوم ودي تيرنو وي إمام موسى جي أجاراما يو الله يوب إمو جيري إمام موسى جي تيرنو نين جيري جف يلنا يلا فايلين باخ تيرنو وي كو سكيتو ويد كو إنن بوب إن جاراما تيرنو نين اللي موي مجا وخ مودي ni jërë ngeen jëf mo limti juut na walla mo limti juuma ceerno nee ku daal lim daal nga guddal walla am koo bàyyi keɗoɗen keɗoɗen ceerno wii o wiyata en tan ceerno nee na lim ñuy wax rek moo di aleykum bi salatil fatihi o wagginta en ko yen ngon e salatal fatihi ceerno nee benn ndigal li ñuy digal moo di ne nañu saxta salaatal fatihi e o wii dendaangal ko cheikhana ahmada tidiani gollannoo e inde neena mboolem li cheikhana ahmada tidiani daan jëfee ci tur yàlla o wii mam e makko ne laada salaalah w sallam wiimo woppu dendaangal ko njogino ɗaa ko pop ngolliraa salaatal fatiha dendaangal ko ngollirannoɗa ko fof nan e der salatul fati neena lola motax mamam maamam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne sayyidi cheikh radiyallahu taala anu bayil mbolem asrar yi nga yoron yep nga téye ci salatul fatihi ndax mbolem yi nga don jëfandiku yep ñu ngi ci bir salatul fatihi won kal do nana terne amna kuko wax sank kala baddo salatul ko lawul sànq kala baddo salatul fatihi gootul kep ko xamne rek nga ben salatul fatihi o wii tewma harmi jeyngol sa yappu yaram aran na safara o wii hoto sikkito mbale jaɓaama walla jaɓaaba ceero neena bul xelu ñaar ndax nangunañu walla nanguñu o wii nde wonno salatal fatiha to ummi to ko jaɓa ha gasi nen lako waral moo ɗin salatal fatihi fi mu bàyye ko fële foof dañ ko fa nangu ba noppi o wii ummi koto kuntuuji meɗen tati to ceerno neena mu baye ko ci suñu ñett kuntu yii kuntu kanzan lam o oraf kuntu nabiyan kuntu waliyan ceerno nee benen kuntu bi nag mu ngi ko denci <laughs> ceerno yaltu o yi on koko mofta ceerno benen kuntu bi yore nako ko waaye nag boobu nag dañ ko denci o wi son teskitima ceerno nee na budé yeena ngi bàyyi xel nde den kuñakaari bi ñu kuñakaari e ceeɗu ngul ngu ci ci ci jamonoy tangorlool abdoulahi bari ne tawa abdoulahi bari fekke na ko ci ve hedde mois de mars ci veeru mois de mars enen fof séri diallo oɗen tawa ñoom séri diallo fekke nañ ko o wii kala jaadunooɗo e meeɗen on ziyara omo tawa képp koo xam ne yàlla dogaloon na nga ànd ak ñun ziyara boobu yan ko fekkee mm -hmm. ñane heen ko kiki yiide alhamis taggal takkusaan bis boobu alhamis la tombe won gannaaw takkusaan ene wuli nguleeki ɓurtuki ceerno nene mu ngi tàng tàngor gu ëpp lool o wii ko e oon kuntu o yiɗnoo nokkude nene ci kuntu googee mu wax mu ngi denc ci la bëggoon tibbu omo arda seeɗa seeɗa muy ñëw ndànk par ndànk o wii tan asamanu o ƴiwni rek asaman sidaadi hiin o yahaani e ndeer kuntu o konnguɗi ɗiɗi konnguɗi tati nene huusul jibir kuntu googo ñaari kaddu ñetti kaddu o wi haa asaman o fof ɓawli nene baddi saasi rek asaman siyeppudaadi ñul kub nde o ɓanti kuntu o bu mu ɗeme ɓajjege kuntugi o wi tan baade juppi rek tooɓi daadi sooteeku o wi yimɓe fof daadi ndogi ñeppudaadi daw omo joguino micro jamono joni mu ngi yoge mu ngi yere micro o wi on aywa nde he micro mum aywa teylen sey micro o wi kadi toɓo ngo wi kat taw widaadi arrêté o wi ha hande ɗum ɗon nan e portable kaalidi so nena loolo batey mu ngi ci portable haalidi so omo windi ñalawma o date o fof mu ngi bindi bisbi ak date bi lépp وفي أون كنت ننكو كنت مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي نينا كنت بابو كنت مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي وفي ميني مو اي كنت اودن كو تيرنا ما كو تير محمد البشير نينا كيكو مصل نكتي كنت مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي بابو نك سيري نم بباخ با موي إيه تير محمد البشير وفي ناني امو يوتي دا اي وابي اوي مين mi suusaa ñaagoraade mawlaana cheikh alhaaji umar al fuuti moo tax sànq yàggul muy waxtaan ak njaboot mbede tawa mu ne leen man ñemewuma di ñaanee ci barke cheikhu umar turu cheikhu umar o wi o suusaa ñaagoraade inde cheikhu umar ñemewul ñaane ci turu cheikhu umar o wi sa ñaagori momo sa rentaki tan ɗum ɓurtat juuɗe ma nen bo moytuwul ñaane turu cheikhu umar rek la nga doon ñaandey ëppi loxo o wii ina jogii goɗɗo mo noddata kanko cheikhu umar o ara o nooto am na keneen ki ngay wo moom mawlana cheikh alhaji umar mu ñëwndaadi wuyu o wii sa noddiimo tan on kam so allah jaɓi ko kun faye kun tan wanata kooku nag boo ko woowee bu soobee mawlana tabaraka wa taala kun faye kun rek lay nekk o wi wona saha fof noon neɗɗo wawata noddude ne andu jamono june rek mudadi fayi duggu nagdi ko wo o wi ko wayno ceerno basiru en kam noddatamo lu mel ni ceerno basiru mom din ko wo o wi nde wonno miijoji mabɓe yettima to allah lako waral moɗe ñoom seeni xalat rek yeggna fa yallah o wi kanko ceerno kala ko miijanima to allah ɗum ma allah tabaraka wa taala waɗane lu mu la xalaatal ci yàlla loolu yàlla tabaraka wa taala dana la defal kala ko miijanima e aduna ma ɗum woni ko allah waɗantoma mboolem lim la xalaatal ci sa aduna loolu mooy li la li yàlla di def o wi ɓinngel capaato noon kala ko haalam ma koto les tillisto itti ɗum doomu naar nag lim la wax ci so suufu tillibare wala o wi sinno wonaano hulde budul won ragal ma o haalan en heen ko ɓuri ndaari budul won moytu dananñum ci wax li gën a yaatu lii o wiinde wonno ceerno ne horsinimo ne hollimo hoore mum nena ceerno kuko ñeewanti lool la waaye tamit kuko won boppam la o wii kono no hatta fof de ceerno mouhammadoul bachiru ko cuuɗiiɗo cuuɗiiɗo cuuɗiiɗo haa a ɗeɓataa anndude mo nena gannaaw loolu yëpp yit Thierno Mouhamadul Bachir jëmm joo xam le ju làqu la làqu la ba doo gaaw a xam kuy Thierno Mouhamadul Bachir o wi heccanki tan omo luɓii ɗo defter omo luɓiimo deftere mu ngi barki demre mu ngi abal ceerno bachir ɓene téere o wii luɓde ceerno bachir oɗo ɓan deftere way kono rokkude doombi gerte ni o kono kalfina doombur gerte nene ceerno bachir mi abal ko téere dafa mel ne comme nga jël say gerte dénk ko ay janax o fi defte ngartata alaa ko o wi gufingal sa daldi gerte ma doobi gufi ngartata alaa ko haali gerte ceero neena boo jëlee say gerte nga dénk ko ay janax xollit yi duñu dellu si rawatina gerte gi nag o jiimi heen haa juuti ceero neena ma daal di sëgg ci téere bi ba mu yàgg ووي اي دوم دو فوف كو نجيمي دو كو مي دوم اي تيرنو مو بشير غيس لي ييب لي ما غيس في غيس ناكو محمد البشير ووي دوم دو فوف كادي او هولي كام دوم لي ييب بي تامير نامكو ووي دوم نون حالو تاكو إدنتال تيرنو نينا لولو نا كين دوكو واخ تي ووي سو الله وليما ايي ها ايي تير محمد البشير هاي سادواكي hay saadu waaki boo demee ba yàlla wërsëgal la nga gis seer mouhamadul bachir nee na doontane ñaanoo doontane ñaanoo kanko noon ceer mouhamadul bachir omo wondi e meeden xalban wa qaaliban omo duwani en mu ngi ànd ak ñun ci biir ak ci biti te yit ceer mouhamadul bachir mu ngi ñuy ñaanal yoo allah jaban en bi jaahi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam ceerno wi en calmini fof en duwanima fof en juurima fof o wi en duwanima fof kono en jejjiti alhaji yunus yusuf sagna nee na fàtte nañu nag borom caméra bu baax bii di alhaji yusuf sagna walla taw en ngandamo walla dañ kaa jotul xam ceerno wi kañum andanamo ceerno nee na moom xamu ko woon sabu omo ara e makko ndax dana ñëw ci mom omo suudi o halata haybat da fay làqatu te du wax dara ha allah wadi o ari o ardi e biiko ba yàlla dogal mu daal ñëw andak domam omo inniri ɓiɗɗo o sérigne babacar kadi o wiyani ceerno o o wiyete ko sérigne babacar o wi ɗum tan o wiyete ko babacar mo gi andat domam mo gi tuddu sérigne babacar waye bimuy wax ceerno ki sama dom la waxul sérigne babacar babacar kese la wax o wi haqqillam addi mbimi oɗo joolakamo holto heeɓi babacar walla sérigne babacar ceerno nene mo daadi dikk rek sama xel ɓe malaaji ma waxima joola bi moom falla amee sérigne babacar Pape Malick Al Serigne Serigne Pape Malick Pape Malick Sy kam nehimo o wi ndekete yo ko Pape Malick kodde Serigne Babacar Sy ko kañum nehimo ne ndekete yo Pape Malick caatu Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhum mom moo ko yar tono yahanno fof kamɓe jaadat fo haj Pape Malick dan ndem moom ak Youssouf Sagnane mi ñooy ànd o wi hay so tawi on ne yaha e Serigne Cheikh ko kamɓe jaadoto don tane sen pape malik mu ngi dem ba ci sen cheikh ñoom ñooy ànd o wi njiimi no teeyiri ni eno e nehori ni eno jaggiri ñamgur makko ndeketo yo won to muy ni ceerno nena ma gis ko nu mu yaree ni mu teye boppam nu mu dalee ndekete yo am na fi mu namp o wi abdoullahi bari en kamɓe gondi rts hay ɗum ɓe ganda ɗum nenemi abdoullahi bari ño bokko nek rts way loolu yepp xamuñu ko won haji yusuf ceerno nena ñu ngi lay nuyu di la ziyar a salminama a juurama yo allah waɗana en jam o waɗana ɗum ɓesgu nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam foof yalna ñu yallah defal jamm defal ko xeetu yonente bi sallllah alayhi wa sallam o o wi samba si o kam ko kamɓe pindi ko kamɓe dawdi samba si mi ñom ño bokku démb bokku tey o wi ko mamiraabe mabbe perdi ummodade do yaade e maulana yaadude e mawlana cheikh alhaji oumar alfouti radiyallahu taala anhu neena samba simi seeni mam ño bokku gadda andak maulana sheikh mawlana cheikh alhaji oumar alfouti radiyallahu taala anhu o wi tata cheikh alhaji oumar alfouti ka ko mamiraabe mabbe ngubbi ngumminanno kaaƴe ɗe neena tata cheikh alhaaji oumar bo nekk cakkuña kaari maamu ñoom samba si ñii ñoo doon yëkkati mur bi o wii baam makko rokkiimo ceerno gila o heftinaani ñaama makko e nano makko wayi juróom nag yëkkati ko jox ko ceerno ca jamono jojo xàmmewul ndey joor ak càmmoñ ko kanko noon heedi e radio safiine o moom nag moom mo féetoo ci wàllu safiina radio bi ceerno wi min nganndaa min duwante walla min moftante duwa ceerno neen xamuñu ndax dañ lay ñaanal waaye dañ walla dañuy denc suñu ñaan bi rek o wii sabu duwaaw ko ko soodete te aan a addaani taw ceerno nee na ñaan dañ koy jënd waaye yow nag andegoo dara ba tey oyi kono haa hannde mi ñamletan waaye ba tey danaa la rebal na daana rebal incha allahu aan e directrice maaɗa e denndaangal gollotooɓe e radio safina fm yow nag ak sa direct ak xajja ñum ak mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci rajo safina fm owi kamɓe gollotooɓe e radio ko délégation mawɗo ɓe mbaɗi ɓe ngari neena ñii liggéey ci radio bi délégation bu rëy la ñu def daa di ñëw o wi liggotooɓe heen hannde e ooɗoo sahaa e liggotonooɓe heen hanki ene njehii e nokkuuji goɗɗi kamɓe fof ɓe ndenndi ɓe ngari ñii liggéey ci rajo bi tey fii ñu toll ak ñafa jaaroon di liggéey tey ñu ngi ci yeneen bërëb ñoom ñëpp ñoo mobilisé wu ñëw fa tabaarakallahu ànd ak ceeroon ci bis bi o wii waɗata ɗum ko gondigal moƴƴal ceerno nee na lii nag boo ko gisee li koy waral moo di ni àndugu rafet yoo allah acci din en ko juuti yal na yàlla yàggal suñu ànd gii ceerno wi suddiiɓe ɓe sohna salamata sohna mariame ba e gorgilaaɓe wonɓe galle o e ɓesngu ngu e hoddiiɓe ɓe ɓiɓɓe ɓe kamɓe fof ɓe nduwanaama ɓe njaarnaama yo allah waɗ e maɓɓe barke ceerno neena suñu tanti yi nekk ci biir kër gi fa soxna salamata soxna fa tabarakallahu mariam ba ak ñeneen ñi nekk ci biir kër gi njaboot gi ñoom ñëpp ceerno neena sant nañ leen gërëm nañ leen ñaanal nañ leen yàlla tabaraka wa taala ceerno wi kala mo jaggaano wirdu cheikhana ahmada tidiani sherif radiallahu taala anhu yo tinno de o jaggoya wirdu képp koo xam ne jëloo woon ɗariqa sayidu cheikh radiallahu taala anhu góor góor lul nga dem jëli ɗariqa bi o wi wona influence ko yiɗande en jam ceerno neena kaddu gi du kaddu influence yéeni ñëpp jàmm moo tax mu wax ko o wii woni ko mbiɗen naane ko ko nelaaɗo allah salllahu alayhi wa sallam wii hay gooto liimanaagal muɗum hakkunde muɗum e allah waawa timmude waawa sellude so wonaa ko yiɗani hoore makko ko o yiɗana ɗum musiɗɗo makko ceerno neena ludulli hadis o nodibi sallllahu alayhi wa sallam wax ni kennakkune cuñerno neena tey ci jamono jii néew na nit koo xam ne danga sañ a wax ni man set naa wéj o wi saa si piraaga tambe ci pira ɓe njanee dowuma boo bëréwul gaa yi bëree dal sa kaw o wi haa teentee noon e oo ɗo alhaji warsab o wi kala moone heɗo e o warsab oo seeɗaani warsab eyyo o dañii probléme ceerno neene buñ ko tuddee allah ji yo wiye seeɗaane warsab o wi haa tengti e keɗotooɗo whatsapp sa e kaalowo whatsapp o wi ene famɗine mbaasata dañde bakka ceerno neena nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci wax jiini de rawatina kii nga xam ne yaa ngi am lii nga xam ne moom la ñuy wax whatsapp waxoon naa ko beneen tur mu ne déedéem dañ ko wax seytaane whatsapp nee na fekk yaa ngi déglu whatsapp bis bu ne di wax ci whatsapp nee na néew na mal la na nga mucc ci bàkkaar ceerno wi holko waɗi nimo wiide cheytane whatsapp li tax mu wax cheytane whatsapp o wi no foti galleji pusi taw ala ko fusi ɗum sowna whatsapp ceerno nene ñaata këra tas te amul lenn leleen tas lu dul whatsapp o wi no foti jikkuji mboni te ala ko bonni ɗum so wona whatsapp nene ñaata jikku ñoo yàqu te amul li yàq jikku yooyu lu dul whatsapp o wi no foti cihilagal boni te ala ko bonni ngal ɗon cihilagal so wona warsab ceerno nena ñaata domu nday yo ɗon andi guir jimmi yalla te ñu tekkali ko te amul liwaral sen tekkali ko go ludul warsab gui o wi hol foof no neɗɗo heɗorto audio arema haala wooda ko haala hen anda ko gonga wona walla wona gonga tan keɗoɗa gasna nelda goɗɗo goɗɗo neldo goɗɗo goɗɗo neldo goɗɗo ceerno nena girlimo wax rek moo di ni ni audio dikke ci yow nga déglu audio bi luñ ci wax xamoo ndax dëgg la wala du déglu nga déglu noppi rek transféré ko ci keneen kooku yóbbante ko ci keneen rek fa tabaracallahu audio bi daa di wesaaroo ci àdduna bi yëpp o wi audio ji ɗi njiyeten ɗi ko ɓuri heen heewde walla film uji ɗi jiya tan heen ɗi ko ɓuri heen heewde tawata koko betti neɗɗo o neno audio yinti gis leg leg yiti gëna bëri walla film yinti gis leg leg yiti gëna bëri ɗe fekk daña ɓetto doomo adama jooju a arat aɗa jooɗi aɗa yewtida e sehilaaɓe ma ɗa ngay ñewdi waxtaan ak say amdi jammu say soppe taw ko kaalton ko ko sirru nder mooɗon fekk li ngeen di waxtaane sekker la seen biir taw won gonɗoɗa e ene ne wujji on ne film on fekk am na ku nekk fee catatu fenêtre bi mu ngi leen di filmé so yalti o sara bugine mu wesare ko wiye i jam ko kaali haali kaaɗo haala ñun i diw ndekete mo wax wax ji o wi taw kanko kaalowo o walla kanko kaalɗo o nde o haalata kaaɗon haala nde o haalata ɗum ɗo ɗo haali ɗum ɗo omo wawi haalde ɗon kaaɗon haala ceerno nena fekk ki wax wax ji wax ji bimu koy wax fimu ko waxe mun nako wax fofu motax mu wax ko fofu o we tan ɗum saro e aduna fof rek wax ji dadi tasaro ci aduna bi o wi ko dum wadi o wi lawol cheikhana ahmad tijani ngol do e ngol moƴƴi e meden cierno neena lolou rek motax muné tariqa ne ɗariqa mawlana sayidi cheikh radiallahu taala anhu bi aka baax ci ñun moƴƴe meɗen <laughs> o wi ene moƴƴe meɗen kanngol laawol ngol e o wi a naatat e whatsapp walla ko wonaa whatsapp aɗa roondo bakatuji haa hiire ceero ne nde ngay duggu ci whatsapp walla leneen luɗɗul whatsapp ngay sëf ay bakkar ba guddi jot o wi sa juuli takkusan ma boo jullee sa takkusan o wi njaggaa e kurus maɗa e nga teye sa kurus بيا استغفر الله غدا واخ استغفر الله اي جومم اي يو سما بروم يا يا فمي جيغل ما كو نالومي حال دكو لما يندو وقتي اي جومم يا يا فمي اكو إيه نالومي هدا دكو اي يو سما بروم جيغل ما سي ليغا خامني موم لا يندو دي دغلو e joomam yaa yaafami e ko ñallumi ndaarde ko e yow sama borom jéggal ma ci li nga xam ne moom laa yendu di xool e joomam yaa yaafami e message uji ɗi ñallumi windude ɗi yow sama borom jéggal ma ci message yi nga xam ne moom laa doon bind e joomam kadi yaa yaafami e ko njahammi ko ngannduɗaa wonaa kadi maa ngi lay jéggalu ci dox bi nga xam ne moom laay dox di jëm fi nga xam ne waruma fa woon dem o wi ko ɗum woni astahfirullah astahfirullah ceerno nene li moodi astahfirullah astahfirullah o wi sen ƴeewi astahfirullah ko karfeeje sappo buñu soote astahfirullah fukki perla fukki haraf la mbiya a as ta ag fi ru alif lam lam ha saqir o wi ko karfeje sappo fukki lettre la e o wi ɗo bakkatuji natirta enen ɗo ɗo fi bakkaridi tabbe cinnit ki e, e terɗe ma peñƴe ɗe si soy ceri yu feeñi o wi kañum ne ko terɗe sappo fukki cerla guite ɗiɗi noppi ɗiɗi hunuko woni joyi juuɗe ɗiɗi koyɗe ɗiɗi e tergal cuuɗigal ngal e mo woni al awra ceerno neena fukki yii la ñaari bët ñaari nopp gémmiñ muy juróom ñaari loxo ñaari tànk ak awra bi nëbbu bi mu nekk fukk ske o wii astahfirullah mu ne astahfirullah bi nag sa waɗi ɗu mboo ko defee har feere heen fof lettre bu ne ene loota bakkaar gongal e tergal gootal harfu bu ne dana daadi raxas ci bakkaar bi nga xam ne moo nekk ci benn ci cër yooyu ah. haa terɗe ɗe laaɓa cer neena ba cer yépp mujj set wecc o wii heddoo ɓernde ɗe mo daadi des holba o wii salatu ala nabiyi o ara salatu ala nabi daadi ñëw o wii gilli nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam cofeelo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam arata e ɓernde du tabbi ci biir xol o wii o tawa e nden ɓernde cheytane mo fekk ci biir xol boobu cheytane o wi hay so tawi cheytane ene hewno e ɓernde ɗon tani cheytane feesonna cibir holbobo so salatu alannabiyi ari tan bo salatu alannabiyi ñewi rek o wi tan o puusirat seeɗa seeɗa ɗe ngay gis moye randu ndank par ndank ha o yaha bamo mujja ɗem o wi gilli nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ngara cofeelo yontibi sallah alayhi wa sallam daadi dëkk daadi tabbi so gilli nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ngari bu cofeel yonti sallallahu alayhi wa sallam o wii yurmeende allah ara yirmande yàlla daal di ñëw won mbiinooɗo ɗo naane am na ki fi waxoon sànq ne so tawii a juulii e nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam laawol gootol boo jullee ci yonente sallallahu alayhi wa sallam benn allah juula e ma laabi sappo yàlla daal julli ci yow fukki yoon ويينون او اندا هولنو الله جولرت ان دوايا خمول ني نان لا يالا دي جولي تي نيت او وي الله جولرت ان دو كو يورمن ني يالا دي جولي تي دومو ادم مو يرماندم او وي سا جولي ان لا دو الله صلى الله عليه وسلم بو جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم بن يون الله يرمما لا بي صاب يالا دادي لي ييرم فوك يون سا جولي ان لا دو لا بي صاب فو جولي تي يونتبي فوك يون allah yurmoma la bi yo allah daadi ley yerum temere yon sa juuli e nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam bi temere bo julle cewndim sallah alih w sallam temere yon allah yurmoma la bi e allah daadi ley yerum junni yon o wi omo sikki noon yurmede allah tabaraka wa taala gotel e neɗɗo o omo sikki kay heeƴi ceerno nena amna yakar ni yirmande e allah tabaraka wa taala ci kaw jamam foog nga ni benn bi rek doy na ala ko haalno sa waɗi temedere nde allah yurmoma laabi jur laabi ujunere rawatina nag walla amul lu wax ni boo defee tiimir yàlla daa di lay yërëm junni yoon o wi heddoo noon ruuhu o ceernene mu daa di des ruuhu bi ruuhu o ko la ilaha illa allah ceero nen ruuhu bi nag mooy mooy kalimatu la ilaha illa allah o wi ko on noon ruttintamo to ummino to mom nak moo koy delloo fi nga xamne ne la baye ko won o umminoo ko e hadara allah mu ngi baye ko won ci hadara yàlla o anati e odo envelope biete do envelope neddo mo dadi tambi ci jimmi do mo adama cheytane ari huri e mako cheytane dadi dik muru ci mom aduna ari aduna dadi dik huri e mako muru ci mom o wi belaɗo fittano ari bëgg bëgg aduna daadi ñëw huuri e makko daadi muurucu moom o wi ha o wayino gonɗo e nder prison bomo mujje mel ni ko tabbi cibir prison o wi oɗo la ilaha illallah e lawol cheikhana ahmada tidiane ceerone la ilaha illallah bi nekk ci tariqa seydi cheikh ahmada tidiane ko oɗo noon waɗatamo libre e oɗo prison mo wonno nena bi nag mo koye muccal ci biir prison bi nga xam ne ci la nekkoon o wi ɗum waɗi kala tijaaniyenke mu njiiɗa moo tax bépp tijaaniye boo gis soo foppiima minet bu bu diwoo li ñuy diwo omo jël bi mu ngi leer foo foppaaki minet bu diwowul mi leen omo jël bi mu ngi leer nde wonnoo annoore allah tabaraka wa taala nene ema ko cer ne naka fekk leeru yàlla tabaraka wa taala mu ngi ci moom yurmeende allah nene ema ko yurmaande yàlla mu ngi ci moom o wi ballal allah ndimbalu yàlla mu ngi ci moom o wi tijaaniyanke ki nga xam ne taalibe cheikh nga allah ene rokki ɗum sutura yàllaa ngi la may sutura soo wiyaanima mi alaa bu la waxul ni ma nde aw ma saa ndaarima boo ko ne jàkk a sikkat ko milliardaire da ngay foog ne sama waaji daal ab milliardaire la o wi wadde de omo waggina en elawol men ngol ɗo woni lawol sayyidi cheikh ahmad tidiane chérif radiallahu taala anu cierno neena mu ngi ñuy dénk nañu ngoy lol ci tariqa sayyidi cheikh ahmad tidiane chérif radiallahu taala anhu o wi ko malal mawngal woni hen cierno neena muccugum reey mo ci nek o wi ko malal mongal taxe gu reey mo ci nek o wi nana imam musa haali sank rek imam musa waxna astahfirullah temedere nde temer astahfirullah salatu ala nabi temedere salatu ala nabi temer la ilaha illallah temedere la ilaha illa temer o wi hokkatma ko radiyallahu anhum waradu anhu lii la lay may mooy aaya bi ceerno wax o wi ko allah yidatma yàlla moo lay bëggal boppam o andin ma hoore makko mu xamal la boppam haa njiɗoraamo e ko ngannduɗa ko bange mujjo bëggi yalla cili nga xam ne moom lala xamal o wi nden noon o weloma boobu nanga am ngërëmam o wi banndiraaɓe so allah welemama mbokki bula yalla bëggee nag o wi aduna ma ma moƴu walla moƴoɗa ceero ne nday laaj ndax sa aduna dana jag walla du jag aduna ma ma moƴu ceero neena sa aduna dana jag so allah welemama bula yalla gërëmee ما لا حرام موج ولا موجرا تيرو نينا صلا خرا ندخ دخنا باخ ولا دو باخ او وي دوم نون الله لاول شيخنا احمد تجاني وني هنت كو موجرا ادنا الاخره نانيو خامني طريقه بي ميو ادنا اك الله كسه موتي نيك او وي فونتي على هنده تيرو نينا نخ ديدت نيكول تي طريقه بي او على هنده تيرو نينا تابالي نيول تي طريقه وي على كو الله يدي سودي ادنو يالا مو بغ ديمبل موتشل وا ادنا بي ندي ادنو او جيبي حاجي بي حاجي بي بي ادنا بي ديمي با جاخاسو جاخاسو جاخاسو اي يرمند مكو اتاغورندي اي يرمند مكو اتاغورندي يرمندم تي خيت بي او وي رسول الله صلى الله عليه وسلم او وي نلا دو الله صلى الله عليه وسلم دادي واخ يونتي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مداد وخير أنت صلى الله عليه وسلم نيون يالا دي يوني وون لا نيغا نيك جيمي يرماند سي مبنديف او وي سا ميدينا جوكاد جاخر سيد بو امون جاك جاك توتي او وي دي مامي مي ليبتا لنيول مانغول دون دو ادادو بيما لا وخيني دوما مبوغل موك سا بي fii ak yaa ngi seen biir o wii jogiɗa jaahle seeɗa sa ala ɗo caggal ma ino wadda e leñol ngol gadadi am le tuut ne boo jogee fii ni yàlla di def ak ñoom wa ma kana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa ma kana allahu muazibahum wa hum yastahfiruna o wii wadde nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yaa woni yurmeende e tagoore nde comme loonu la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccil nga nekk jirme jëmm yërmande ci mbindeef yi o wii ko ɗum woni ɗo ceerno mouhammadin na haali naane loolay li ceerno mouhammadin wax sànq o wii o yiɗnaadde ɗon tan dartinɗen mo dafa dem bay bëgg a xuus ci domaine boobu rek ñu fereene ko o wii ɗo abi samoun e salala ɗo fi nga xam ne ñaari bërëb سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه يويا او وي او موندي اي المبد مكو ديدوبي علي الدمراوي محمد ابن دمراوي الدمراوي التازي او دون كوكو ادني مو سيود لي تخ مو سيو كو غيلي مكو اي شيخنا احمد التجاني رضي الله تعالى عنه شفيلا اكسري نمبه nelaaɗo allah sallah alayhi wa sallam yiɗorimo sababune yiddemo seydna cheikh radiallahu taala anhu yentim sallah alayhi wa sallam mujji soppu ko ngir cofeelem ci seydna cheikh radiallahu taala anhu omo yiya nelaaɗo allah sallah alayhi wa sallam almuɗo seydna cheikh radiallahu oɗon laabi nogas e nayyi e nder 24 heures sur 24 o dana gis mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki ak yoon ñaar fukk ak ñeenti yoon ci 24 heures sur 24 heures bi cheikhana ahmada tidiani tolninomo nokku ene hersanno namdade nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wongueɗe seyidi cheikh radiallahu taala anhu tollonno ci jamono danno rus mamam laaj ko yenne yi o wi addamrawi oɗo cheikhana tidiani haalnanno haaju o on haalna nelaaɗo allah sallah alayhi wa sallam nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam jaabo damarawi damarawi haaltana ɗum sayidna cheikh radiallahu taala anu ceerno neena damarawi mi la sayidi cheikh ahmada tidiane daan wax soxlam kooku daal di koy yóot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déglu li wax tontu ko moom damarawi moom damarawi mu indi laa tontu boobu mawlaana sayidna cheikh radiallahu taala anhu o wiinde wonno ko bi ko sa belɗam ne allah sallallahu alaihi wasallam sallam soyimo fa fek ne nitu yàlla bobu talib sayyidina cheikh radiyallahu taala anhu borom sawsu labla borom men bu labla motax moo bi sallallahu alaihi wasallam sëfe ko hoto tinde hore makko bala muy dem ba yëg bopam o wi ne la do wi mo sa yi aɗa yiya kam labi nogas enay wana sababu ndema de ey damara wi maa ngi lay biiral di la yëgal ni boo gisee bis bi nga ma ciy gis ñaar fukk ak ñeenti yoon du ngir sa jëmm jii de ko gilli ma e cheikhana ahmada tijaani nee na li ko waral daal moo di ni sa cofeel ak ci sama sët bi di mawlaana seyidi cheikh ahmada tijaani nee na daal yokk bay du gilli maa e cheikhana tijaani yonent bi daal di koy ñaax ne ko dollil sa cofeel ci seyidi cheikh ahmada tijaani sharif radi taala anhu o yi ne kadi ko safreede o wii so nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam safranoma bo ko yonente bi sallah alayhi wa sallam teelul won faj ene wawno jibinde goɗɗum nene mbirmi mu noon no juri lenen hono no cheikhu oumar e chérif mouhamadoul ghali comme diggante cheikhu oumar ak chérif mouhamadoul ghali o wi cheikhu oumar ko neɗɗo ballaɗo cheikhu oumar nitu yallah biñu teele dimbali la kadi omo andi ko dartata ko te yit xam ne li muy wuti moy lan omo andi kadi ko kanngo jeyi ɗum te xam ne loolu moo o ari sherif chérif mouhamadoul ghali bi mu dikkee ci chérif mouhamadoul ghali omo jogii ganndal timmungal am na xam-xam gu mot omo jogii ɓinngu moƴƴaagu timmungu am na tamit askan gu mot sëg omo jogii dental timmungal am na ngu am na mbooloo gu mot sëg omo jogii kadi jawdi haa heewi am ju alal ju mot sëg نوالي دوبي تتدي أولي دون دي شريف محمد الغالي كان كو شيخ عمر تطمو ديباس نينا نيت عاد يمو شريف محمد الغالي موم شيخ عمر موي генي ديباس ديكو جوخي او وي كان كو هولتين تا شريف محمد الغالي هولتين غالي اوفوف موم موي جوخ كوداي شريف محمد الغالي جوخ كو نجابوت جي ييب او اري اتيرنو allah ene rokuma e gandal zahir ko ganduda cierno mo garda o wawa sagidem neena dik nga ci sëriñ yaangi am xam-xam ci walu zahir lo xamne ne bi nga set sax munu la ci gaganti o wi ari ka di ka jom lasli moji ñëw nga yi tamit yaangi baye ko ci askan gu bax o wi sabu eden ngandi fuuta kala mo cheikhu oumar jidani ay tantake gedal ndax xam nañu fuuta gi ku ci bokkul ak cheikh alhaaja oumar kenn du la jox cër kala kadi mo jokkondiraani e makko a itantaake geɗal képp koo xam ne nanguwo topp gannaaw cheikh oumar kenn du la dindil cër o wi ɗum noon ko e kindi ɗi pop ne nee na loolu nag ci gi ci xeet yëpp la mala ci famille yëpp ci giir yëpp allah rokkiri pulaar o wi isna achara أسباقاً أوتو كالادو القرآن الله إن ركدهم كدي إن رمغال بولار اللي الله إن ركبهم نينا فكي جير أجنار يالله وخون فليت القرآن الكريم نبو سيد الله دفع ملكم فكي جنار يوي يالله انكم مي أسكنو حال بولار ويوي حال بولار إن كوكين دي سبو إدي نغني هن نينا أسكن حال بولار فكي جير أجنار منيوتي نيك o wii hinde heen fof ina jogi holko darontono e renndo ngo nena giir bune am nge mecce bi nga xam ne moom nga ɗon taxawale sisabir askan e o wii kinɗe ɗe pop kala jokkondirnoɗo heen e mawlana cheikhu oumar a yiiti heen hoore ma nena giir yo yëpp غير بوتي جوكوون اك مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي نينا غيس nga sa غيس nga sa bop ci bir joko bi nga joko مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي وي اون كاي سو اري تربيناد ادي غاندي وانا درجه او جيوات نينا نيتو يالا بوبو نك سو نيوي دي تربي نينا خامنا ني دو درجه دو درجه لا يورسي وي الحمد لله رب العالمين اون ساهاندي او يحات او مو جوغي دنتال ندي ونو كالا ليدي ندي او ناتي leydi ndi ma dillu ne sant ñeel na yàlla jamono jooju cheikhu umar am na mboolo gu takk ndax réew bu mu dugg rek réew moomu day daal di yëngatu am ñu bëgg ànd ak moom o wii ndew ari nigéria to cheikh ousmane foo dee bello bi mu ñëwee nigéria ci nitu yàlla boobu on meeda ummanaa di neddo kooku mutul musul gàttandiku benn doomu aadama kono nde cheikhu umar ari nde on ummii ko e nokku muɗum وجيني دون شيخنا عمر واي بي شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه يكسي واجوجو دا فا جوج سي بلاصام مو دادي فاي توغلو مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه وما جوغي سودو خلوة امنا بين نيك بيغا خامني تي لاي جامو بروامم o wi gilande suudundu feewna onati ton haybi ko wana goddo meeda nadde ton biñ ko tabaxale neek bo bo mu nopp mu duggu fa neena du njabotam waxi nopp kenen nak musu faa dugg o wii ko ndun suudu o jippini cheikhu oumar ceerno nee na ci biir néeg boobu fala dalal mawlana cheikh alhaji oumar al fouti radiallahu anhu o wii ɓii ko mouhammad bello namdi wi baaba mbeɗa namdoma hannde de mi yii e ma komi meeɗa yiide doomam ji nag ne ko papa tey daal dama lay laaj ndax gis naa ci yow loo xam ne musuma kaa gis ci yow o wi min bammade mi jaabuma e ko namdiɗa kam ko mbeɗo ñagotono allah tabaraka wa taala yo allah a arsiginam miya waliyu ɓurɗo e waliyaɓe ɓe pop allah waɗani kam ɗum hannde ɗum waɗi njiiɗa ko njiiɗa ko nena man so woyjurde naala tonto cilaaji bi nga xam ne moom nga mallaaji ndax maa ngi ɗoon ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na ma yàlla wërsëgal ma dajeg nitu yàlla bi nga xam ne moo raw ci nitu yàlla yi moom la ma yàlla defal li tey lii moo tax nga gis ci man li nga gis ci man tey lii o wii mata eyan gila pinɗen faade jooni diwe ɗe en meeɗa yiide ene ndiwa ene tiimi e dow koye meɗen haa jooni gorgi de daadi wax doom ji ne xanaa gis o biñu yeewoo ba tey picc yi nga xam ne ñu ngi ñu sëpp ak picc yoo xam ne musuñu leen gis seeni melokaan ñu ngi ñu tiim depuis suba ba tey yi gisoo loolu yow o wii ɗiiɗo ɗiiɗo colli ɗi njiiɗa kala ɗo njiiɗaa ɗi tiimi waliyu allah o omon ɗoon nena picc yi nga seen sàng foo leen gis ñu sëpp rek nitu yàlla baa ngi ci bërëb boobu o oh, wi ɗoo noon yimɓe ñalli arde ɗo nit ñi nag yàgg nañ fi ñëw o oh, wi kono noon nde mbiimi cheikhu oumar nde tan nganndumi ko ooɗo waaye bi ma yàlla wërsëgale sama boti tegu ci cheikhu oumar ma xam ne kii mooy waaje o oh, wi sabu nde cooyni moomu omo ara nee na bi ma ko séenee muy ñëw ndaar mi hoore ma ko ma xool bopp bi omo yaha bopp dem ha o seeki asamanuji jeeɗiɗi ɓa bi xotti juróom ñaari asaman o yimi anndade to haa ɗo e hawma fo mu yem nag o wi ndaarmi les koyɗe makko o wi jiimi koyɗe ɗe ma gis tanki eɗe njaha ñuy dox haɗi ɓeyni leyɗeele jeeɗi biiji ba ñu rombu juróom ñaareelu suuf mi annda noon ɗo haadi hawma fo mu yem omo ɓattoo kam mu may jege omo wonta jimmi neɗɗo moy nekkat jimmi doomo adama omo ɓalloo kam omo wonta jimmi neɗɗo moy nekkat jimmi doomo adama ha o yetti kam bomo daadi yegg min ne ngummimi joƴƴinmomi to jooɗinomi ɗo manit ma jog o wi gummi ma daadi jog nag togloo ko fima fima toogoon o wi to yahata to noon wonko addoy toon felemu jëm am na lum fay jëli nag o wi mi du wiima noon so yehi hoto ƴan hay nokku so wonaɗo ñan naate yallah mbo deme ba jeni ni muy jeni mbomo jar fenn ludul fii so artiɗo noon eto e e ɗen ƴiiƴam meɗen e ƴiiƴam makko renda na gen gorgor lol suñu deret addere tam jahaso nde o arti nde ɓe dokki mawlana cheikh alhaji oumar al fouti sohnajo ene wiye aicha ɓe cheikhu oumar ñewate nag ñu may ko ab sohna mo ngi tudd sohna aicha omo wiye nena satouru mom la ñuy tuddee tamit ba tey nena satouru on woni yummum laamɗo juulɗo mo nanteno kooku mooy woyjur laamɗo juul mi ñuy dégg o woni ahmadou cheikhu oumar kookoye ahmadou cheikhu oumar e o wi jaaduɗo e ngal ɗo dokkal ki nga xam ne bi ngay tukki yaa ngi ànd ak mayu yàlla gu gu tollu nii e o wi aan kay aɗa anndi aɗa jogii dokkal moo ngal yow kay war nga xam ne am nga may gu réy kono noon wonko woli ton ko buri dum do fof ceeno neena waaye nag am na li nek ci bir li muy wuti li ëpp li nga xamne mom la yore won woli ton li fa nek koko allah rukuno baba adam ko moy li yàlla mayon suñu wayjur ju bax ja muy muy yonti allah adam alayhi salam wa allama al aadama al asmaa kullaha on sirru sekkere boobu nde baaba adama yahata e biyonti allah adama di dem o rontini ɗum siisu mu don mu jokko domum siisu siisu nde yahata siisu bi muy dem rontini ɗum mbiyumu dontal donnal ko domam ha yetti nuuhu ha yetti e mbamu yegi ti nuuhu ene yaha ene yaha muy dem di dem ha yetti isa bamu yegi ti isa ɗo isa ɗo noon dari foof nag mu taxaw fa nde wonno nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam hay goto wonata cierno makko ndax yonente bi sallah alayhi wa sallam kenduɗo ek sériñam haa allah addi jibril ba yalla andi jibril jippini e makko qur'ana ci mom alqur'an o wii kamɓe tafsiroɓe qur'ana be ñom ñi nga xamne ñoy tafsir alqur'an e be waawi taw e be gandi dum amana ñu xam li ma bëgg wax ceerno mouhammad tin bani hashimen o wii jibril alayhi salam wii annabi o sallah alayhi wa sallam iqra jibril daadi wax yonni sallah alayhi wa sallam iqra o wi min min mi janngaani man jannguma o wiima janngo o wi min mi janngaani man jannguma o wii haatataɓol o wiimo janngumo daadi ko wax janngal si ñetteel bi o wi holko janngamu daadi ko wax lallay jang o wii janngu innde joome janngal sa turu boroom o wi ko ɗoon o haadde makko fof la yem ak moom وويلي هي ها ليلة الإسراء والمعراج بمدمنة بليلة الإسراء والمعراج وي سر غنودو تو تو علم الآدم الأسماء كلها سكر بنيكون فليت وعلم الآدم الأسماء كلها وي الله ركي مدوم تو على كيد حقني الله إن الله الله صلى الله عليه وسلم ما أوها وي يلا دادي جل نك بوبو jox ko mawlaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fekk jaarul ci loxo benn yonent jaarul ci loxo benn malaaka loolu moo tax yàlla ne fa awha ila abdihi ma awha yàlla ceeru nee na yàlla ak yonent bi nag ñoo xam la moo fa nekk o wi yàlla ne allah haalani ne laa tan koko haalan ɗum ko yalla dal limu wax yonente mom la ko wax o wi no comment ay ɗum noon ala commentaire ceerno wi dal commentaire ala hen allah haalani koɓe kaldi ko allah de jantaaki ko ɓe kaaldi ko e allah de tuddulli ñu waxante kanko kadi nde o arti hay robe allah yii kami kadalika nde o yehi noon ha o fayi e hoodde e joomi kanko rasulah sallah alih w sallam bomo deme nag ba mujjantelu dunda mom rasulah sallah alih wa sallam o jangini batin o noon seyidatuna fatima mo daali jangal nag batin mbirmi nag seyidna fatima رضي الله عنها يولي الله ونعمكو هذا اون ياد بلا كوكو دي دم واتباع موجينو ميكت بادين بي ميرون وتوتي سيدنا علي المجاهد كو جو سيدنا علي اون جوغي ظاهر او اباتنا كوكو دادي بوله ñaar yep muy ظاهر بي اك باطن بي ني سيدنا علي ياد بي سيدنا علي دي دم اون توتي سيدنا الحسن كوكي دادي جو سيدنا الحسن ظاهر zahir e batin foofu kooku daal di koy jox zahir ak batin sayidna alxasan da yaxata ka ñu ne bi muy dem moom it o setti sayidna alxusayn mu daal di koy jox sayidna alxusayn ina yaara noon muy wéyee noon haa zahiro ba zahir bi e batino ak batin bi e batinul batin o e ko woni caggal muɗum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rokki ɗum cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zahir boobu bi ceerno wax ak batin bi ak batinul batil bi ak la nekk ci seen i gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy yëkkati nag jox ko suñu sëriñ ba muy seydina cheikh radiallahu taala anhu oui cheikhana tidiane radiallahu taala anhu oɗon sirru noon وتتدم شريف محمد الغالي نانا سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه سكر بوبو نك يلانتي بي دان دون دي دون تالي بامو ييغي مو ييكتيكو جوكو شريف محمد الغالي او ويو ايوا يا جودو ماكو مو دادي كوي واخني لاغال دمال تا مكه المكرم nga togi fa ma jomum aran boromam dana la fa الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه كوكو نك دو كين كودول الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه او عدني ان مودادي ني o wi ha hande ko hen guurɗen ba tawi fiñu tollo ceeñu dundu o wi kala galle nodduɗo ɗo e leydi ndi o noddiri allah yimɓe notimo junngo mawlana cheikh alhaji umrol fouti nan e nder oɗon galle ceerno nena bepp kiru diine bu nekk fii ci diine gi bo wootele yallah nit ñi wuysuya nena nanga yëgne loxo cheikh alhaji umrol fouti tabbina ci biir kër googo o yiilli e sénégal fof ala ɗo yahani yo allah mayno ko worno sénégal gi yeb amul fo mu tagol tan e kam omo yiiɗi kankone andude holmo resnata zahir o e batin o kallay dink zahir boobo ak batin boobo omo andi poɗɗo ɗaldeɗo o on ndenen to alamul arwahi suwa arde e aduna xamne kiñum wara din ki yefya mu ngi ca alamul arwah ñewogol ci aduna allah waɗi kaw mum jiyaɗo allah oɗon toyimo toto hoore fone o itta sirruji ɗi o fawi e jooɗum o resnanimo wonande joomum cheikh alhaji oumar al fouti ɓumi nekke hoore fonde nijaayu nitu yallah biñu bëgga wax léegi daadi koy fekk ca hoore fonde mawlana cheikh alhaji oumar al fouti jël mbootiye dénkuloo ko nag jarbaatam bi nga xam ne moom mooy ñëwi on noon wona hay gooto so wona Mawlana Sayyid El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu Ceerno nee na kooku nag nga xam ne moom la ñu jëloon mbiri ñu dénkuloo ko ni jaayam du kenn ku dul ni borom parasol ba di Sayyid El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu oh noon nde wonnoo ko kañum jeeyu nee na kooku nag naka fekkoon ni moom moo ko moom o tasi ɗum e aduna he fof mu daal di koy wesaare ci aduna bi yëpp haa teenti e leydi sénégal rawatina nag réew mi nga xam ne ci la ñu nekk o wi so wonaano batte corona ceerno budul woon jamonoy corona o wi sinno wonano korona oɗo ala wuro ala leydi ala leygel ala gallel so wona fatihi lima ugliqa ene jangte ɗon taw ko gandanɗa hoorema e cargol mawlana seyid alhaji malik allahu taala anhu ceerno nena budul won eh, mbasmi nekk ci réew mi fii ñu toll ci jamono ji nii nee du du dëkk bu rëy walla dëkk bu tuuti du kër gu rëy wala mu nek kër gu tuti du néeg gu rëy wala mu nek néeg gu tuti lu dul ni ñu ngi fay sàq mi salaatal fatixi li ma uxliga ngar la ngir lan ci barke wessare bi mam sayyid al malik maris radiyallahu taala anhu defoon o wi sunno be jangino ko cheikhana ahmada tidiane radiyallahu taala anhu halfini en ko buñu jangon li nga xamne mom la suñu góor gi cheikhana ahmad tidiane denkon so wona kadi needi hilifaɓe men ɓe sinno wonaano needi be men be budul won yar gi nga xamne mom la suñu khalifa yi àndal o wi al wazifatu li nga xamne moy mooy wazifa o wi wazifa oɗon ko defare e dendagal région wala e capital wala e département wala e arrondissement bawɗo janguede wazifa o wi sayyid cheikh radiallahu taala anhu o wi oɗon wazifa ko hoolaare ko defaare e oɗo nokku ceerno neena neena benn wasifa boo xam ne jàng nañ ko sayyidi cheikh ahmada tidiani neena wasifa boobu garanti la ci capital googu wasifa boobu garanti la ci région boobu wasifa boobu garanti la ci département boobu wasifa boobu garanti la ci arrondissement bu mu tafise ko بالمزيئات لا بالقد جسما مودوني بالخدرتين غضمنتم أهل التجاه يومي سواكم موعد بحضور المدري عدنا قد صح ما قال شريف عناية ceerno neena ko addanimo ɗaccude ɓe jima ceerno en li tox mu bàyyi ngeen woy kono kadi ne ko jima toon ko kadi musique am o wii kadi ko jima ton ko muusiimo li ngendi woy tamit metti ko o wi oto jiyaaɗo allah wiino ene yima o dartin ɗum nena jiyamo yo allah ɓe sanko boggonno woyde mune ko mayma eyi wonanno ɗo ngum o wi onon ne on gummini o deƴƴi yen yekkati ngen rek mo noppi kersumi wiide on deƴƴe watami wiide deƴƴe to deƴƴe ga wona deƴƴe deƴƴe heewa o wi o hersi wiide on deƴƴe honono wiide to deƴƴe deƴƴe deƴƴe o heewa ceerno nene madadi rusdal wax leen noppi leen comme ni ma waxee won kale noppil nen noppigi noppi leen gi daadi bëri loolu moo tax waxuma dara kurmi noon walla walla walla mettinmi o wi o mettini mo daadi dal mer walla kulmi o huli mo daadi ragal wata oto ɓernde mum dillude sabuhade hade oto ɓernde muɗum dillude ko sabu tijjanige ceero nenama dal ma ragal mbala holo kaleedi yengatu girlimo nen ko taliba seydi cheikh radiallahu taala anhu hande jamma har kala kone dillina ɓernde tijjanige hoto neɗɗo o wi hande jamma hande o kala kone dillina ɓernde almuɗo tijjanige hoto jaabu wadde ɗum ceero nen dal mum ñuy deng mbollem lo xamne dang koy def mu yëngalu xolu talib sayyid cheikh radiallahu taala ceerno ne mo ci loolu de ha tenti non e odo saha rawati na ba ci jamono jini ñu toll o wi say yewter ne o junni hen hande yettoɗo bo gisee waxtan bi mu teye ko bu mu yegg fi o wi o yiɗi ko yewter ne yetto 5 h wala 5 h moy écart bu bëgg waxtan bi mu dem ba 5 h wala 5 h moy écart o wi den ñu daal di koy mujjé ñaan ñaagoɗen allah ñu ñaan yàlla e gooto e men kala kenn ku ne ci ñun kala ko woni himme ma lépp loo xam ne sa yitte la yoo allah humtene yàlla na la ko yàlla fajal kala ko woni kulol ma lépp loo xam ne ragal nga ko e yoo ɗum won kumpa ma aduna e laakar yàlla na loolu doon sa kumpa aduna ak allaxira oy sañ isa laay ceeroneena kontaan na o wi meruma ngir yen waaye dama tiit ngir kële oumar o wi nde wonno neɗɗo wonko hulata ko heewi nit am na ragal lu bari حسنات الأبرار أوي حسنات الأبرار سيئات المقربين أوي كو سيئات المقربين منهم مجياك مقرب مجياك مقربين أوي كان كو دي أوجياك مقربين إن أوي كو نون أو مهولي أهل المقربين إن أوي دو نو كو بكمبا أندابي أوي ولي يابي بي إلي بيتي بيتي تاتي فوف أوي فتر واتر بنين تربي ولي يابي بيتي o wii ceerno wii waliyaaɓe ɓe ene pecci pecce tati ceerno neena nitu yalla yi ñetti haaji i lañu lañu seddu oo ɗo ko waliyu omo anndi ko waliyu yimɓe ɓe ne nganndi ko waliyu ceerno nene kii waliyu la xam nani moom waliyu la nit ñi yit xam nañu ne moom waliyu la oon yimɓe ne mbaawi reentaa ɗum kooku nit ñi mun nañ ko moytu oo ɗo ko waliyu kii waliyu la omo andi ko waliyu xam na ni moom waliyu la kono noon yimɓe ɓe ganda ko waliyu waye nit ñi xamuñu ko waliyu la on ne wawi rentade yimɓe ɓe koku mun no moytu nit ñi oto kimu jëkkoon wax mo adi wiido ko yimɓe ɓe ndentoto ɗum oɗo mo wi joni ko kañum rentoto yimɓe kimu wax leegi mom moy moytu nit ñi o wi tataɓo o noon ko waliyu kono o annda ko waliyu yimɓe ɓe ngannda ko waliyu kilen ñettel kirak moodi ni moom waliyu la waye xamul ni moom waliyu la nit ñi tamin xamuñu waliyu la kooku nag on noon o waawa rentaade yimɓe ɓe yimɓe ɓe mbaawa rentaade mo kooku nag munul moytu nit ñi nit ñi munuño ka moytu o wi oɗon o wayi kono kurus taƴƴo e ceenal jammani kooku mu mel ni kurus boo xam ne dafa dog ci guddi ci kaw suuf ti suufu géej neena o wi so krus taƴi heen bo krus dagee fof o wi ma ɓooye men mbaadi di nga yaadde lambatude aɗa waawi haa wurude e hayre aɗa waawi hawrude hunde fof mun nga dajak doj mun nga dajak lune o wi ɗum noon a moƴƴinat njortoma e fof en ceerne lool nag da ngay rafetla sa njorto ci ñëpp rek eɓe gona e rewɓe eɓe gona e worɓe ñooñu dana ñi nekk ci jigéen ñi dana ñekk ci góor ñi eɓe gona e seerem ɓe eɓe gona eɓe gona seerem ɓe danañu nekkti sérine si danañekti ñanañu ɗo sérine si eɓe gona e geseji ɗi eɓe gona e bureau ji ɗi danañu nekki ci bureau yi danañu nekki tool ya eɓe gona e cañirgal eɓe gona kadi e machine aji tayeraji danañu nekk ci fiñuy rabbe danañu nekk falmen fiñuy ñawe eɓe gona e mawɓe eɓe gona e sukaɓe danañu nekk ci ñu magñi danañu nekk ci ami ci ndawñi o wii hay keewɗo heɓɓi heb uh, huɓɓinde wonki sukaaɓe ono annda ko warde ko nene tamit barine tamit ko xam ne barine li muy tàngal xolu ndawñi koko de xamagul ba tey li muy def o wii hay ceerno jangginoo wo qur'ana omo rentinma ko heewi hoto piyete sukaaɓe hoto piyete sukaaɓe rawatina sirigne si nga xam ne ñu ngi jàngale ndawñi di leen jàngal alquran ceerno nen mu ngi leen di ñaax di leen fàttali toujours bu leen di bëri li ngeen di dóor xale yi o wi sukaaɓe ɓe ko ɓe mbuusuuji allah ko allah tan anndi ko woni e maɓɓe nena xale yooyu ay mbuusu yàlla lañu yàlla rek moo xam la nekk ci ñoom o wi ɗum noon allah walli en cheikhana cheikh alhaaji oumar al fouti radiallahu taala anhu ko kanko woni sens meɗen yàlla dimbali nañu nag ñun mawlana cheikh alhaaji oumar al fouti radiallahu taala anhu mooy suñu sens وي من شيخنا عمر من اتتا غيدم دو اي ادونا من اتتا كدي غيدم جانغوتو الاخر نينا من سما صوبي في شي ادونا دوما كو سيتان دوما كو ساغنتي دوما كو باي فليت الاخر تمر كذلك دوما فا سيتان سما صوبي دوما كو باي تمر مو ديمي نون وميدي حال دو مسنكو واخ تيرنو سعيد نور اني هيوي حالتو دوم برنلي مو كوي o wi kanko e giɗo makko janngo ɓe tawetaake tampere darnga neena moom cheikh oumar ak soppeem duñu fekkee mukk ëllëg taxawaay yowmal qiyamatu ak coonog yëpp o wi muhtar bun wadi atullahi woni ceerno yero yero koye ɗelfi borom ya sahibal wakti o wi ko ɗum o yinno wiide loolu la bëggoon wax mooy nitu yàlla bii o wi jimɗo ya sahibal wakti o ki nga xam ne moo woy ya sahibal wakti o wi nden cheikh oumar holto gonton mo daadi wax cheikh oumar yéen jamono jooju fu ngeen di nekk o wi min e giɗam fof min gonata ko less arche mu daadi koye toon de mu ne ko man ak sama soppe yëpp ci suuf arche la ñu nekk bis boobu yimɓe ɓe ñaawi haa gasa ñu daadi atti nit ñi ba noppi gewnotoɗo ewno ki woote daadi woote o wiya cheikhu oumar an e ɓesgu ma ngare yow cheikh oumar yok sen jabot ñawlen ne laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam totte caabi aljanna ñu daadi jox yonente bi sallah alayhi wa sallam caabi aljanna o wi nden min o cheikhu oumar koto ñaamo nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam keeɗen mo mu ne su bisba man cheikhu oumar ak sama soppi ci fa tabarakallahu ndey jooru yonente bi sallllahu alayhi wa sallam ci la ñuy féete o wi ɗum noon ceerno seydnour heewi wiide ganduɗo ɗum e cheikhu oumar añataa cheikhu Umar nee na Thierno Mame Seydou Nour Tall daan na wax ni ku xam lii ci cheikhu Umar waroo noono wala nga bañ Mawlana Cheikh Alhaji Umar Fouti radiyallahu anhu yàlla rokkee yi de cheikhu Umar yal nañu yàlla may ñu bëgg cheikhu Umar bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o wi o hesɗitinde wiide en ko hoto en jejjit laawol cheikhana ahmada tidiani li muy beesalaat di ñu ci soññ mooy bu ñu fàtte dariga seyidi cheikh ahmada tidiani o wi ko buri hen mojjude fof saɗa hoota ɗaccu ha kota e nokkuma ƴeewa muqaddam mo nanga e makko ɗacca gana baax mu rafet modini ku bëgg japp ku ne ba nga ñibbi ci sa bërëb bi nga nekkoon nga seet fa muqaddam bi la jege nga ñaan ko chartu tariqa bi mu garal la ko nga daal di jël tariqa bi nga dem sa yoon Fondo. ceerno wi e raɓɓidinde dal gooto e meɗen kala kala ɗo mbawɗa wonde sénégal caaroynaɓeɓe yo ƴeewu moqqaddam ɓe caaroynaɓe pikinnaɓe ƴeewu moqqaddam pikinnaɓe dalifornaɓe kr masarnaɓe malikanaɓe mbawnaɓe ha fouta tiwa won pulnaɓe sangal kamen kamɓe foof goto foof to gonɗa moqqaddam sijidi cheikh radiallahu taala anhu nan ɗon jaaha ɗon o rokkumaɗa lawol ngol ceernanedal ci gattal dal kenno kune figa baye ko pikin ɗemnen pikin amnayi moqqaddam Rufisque am na ay muqaddam dem leen fa Thiaroye c'est la même chose kenn ku ne daal foo mën a bàyyeekoo foofu am na muqaddam Seydi Cheikh bi fa nekk demal ba foofu nga jaayante ak moom mu jox la dariqa bi ko nafoore tan woni hen njëriñ kese moo ci nekk yo allah waɗen en jam yàlla yàlla defal jàmm joni noon gooto e men fof yo wat fatiha laawol gootol ceerno kenn ku ne ci ñun na jàng fatiha benn yoon salaat al fatihi laabi tati salaat al يا لطيف يا لطيف يا لطيف لا بأجنر on sahaa so timmi gooto kala ñaago allah haaju mum bu demee ba ñu matal kenn ku ne ci ñun nga daal di ñaan yàlla nag sa soxla jogiiɗo kurus timmude temedere ko yore kurus goo xam ne motna téeméer a yahat laabi sappo kurus o de ngay lim kurus bi fukki yoon e ñaagima allah yo allah rokku en hawru ɗo o saaha mo wuuri ñannañ yallah yallah ñ allah mayño fekkinagi dewen taw eɗen ɓeydi en ustake fekk ñogi yokku dara wañe kulti ñun bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kala ko kalɗen hen ko feewi koto allah ummi so tawi wonko pergitiɗen hen o wi ko neɗɗo wonmo timmani kono onen foof o ñaagima en yaafuye ñun ñëpp mu ñuy jeggalu kala ko fotno halde taw o halan lépp lu mu waroon waxta waxu kala mo fotno halde taw o halan dum kumu mu tuddu te tuddu la ko haqqil la noon xel mo mel nonu o nyaagi mo fof en ya fi mu ngi jegalu ñépp yo alla ɗaccide en ko juuti yalna yàlla bàyyi suñu digeenti gi lu yàgg yo alla beedu mbaaw ka kaa yal yàlla dolli mën mën ba yo alla beedu suturo yalna yàlla dolli sutura bi yo allah ɓeydu teddugal ngal yalna yallah dolli serage ji yo allah waɗ emen barke yalna yallah tabbilti ñun barke yo allah waɗ e ɓesguji men barke yalna yallah defti suñu jabot barke yo allah waɗ e kala ko paggiɗen barke mbolem lu ñu faggu yalna ci yallah tabbil barke yo allah waɗa intidiani en kooɓe ɓe ɓoorata ko ha abada yalnani yallah def ay taliɓe cheikh yudul summeku ba abada yo allah waɗan en jaam o waɗana e leydi ndi jaam yo allah yàlla defal jàmm mu defal réew mi jàmm yo allah waɗ e leydi ndi kawral e nanodiral e paamodiral yal na yàlla def ci réew mi déggoo ak juboo ak fa tabarakallahu daje ci yépp nag yo allah riwan en caɗeele e leydi ndi e kala probléme yal nañu yàlla dàkkal ci réew mi mboolem jafe-jafe ak mboolemi xat-xat o wi korona eko wona kona fof ko allah addi so welama yo yaa tan o nawat yo allah ittan en ɗum ɗo ceerno nena korona agludul korona lépp yàlla ko fi indi bu bëggee mu dem rek day dem yàlla ñu yàlla dindil fii lépp yo allah aynu en reene en yàlla ñu yàlla sàmm te wottuñu yo allah hisnu en hisnan en yàlla ñu yàlla musal te muccal ñu bandiraɓe ummiɓe ha to woɗɗi to mbokk yi nga xam ne ñoo bàyyee ko fu sori ha duum nga yo allah wat on ɗo e jam yalnan yalla def len fi ci jàmm kadi ko ton e jam kadi ngeen ñibbi ci jàmm taw ton jam ngeen fekk jàmm hoto on nimsan garangal mondo, ɗo yalla bu nge boo leen reccu li taxoon ngeen ñëw fii yon ji e garangal he ɓeydaare yalla ngeen gis ci dikk gi yokkute to bange allah e to bange aduna ci wàllu yalla ak aduna bi yépp nder noon e boowal ci biir ak ci biti gooto emen fof allah ina anndi haaju mum kenn ku ne ci ñun yàlla xam soxlaam yo allah humtu yàlla na yàlla faj soxla yi allah mo yiji taaw yàlla mi nga xam du fàtte yo allah yob ñëpp di mujjir yàlla yàlla fay ngën ji pay bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam on njaaraama bisimillah mbaɗen duwa o fatiha gootol fatiha benn yoon salatul fatiha laabita salatul fatiha ñetti yoon ya latifu laabi ujunere junni yoon sen ngayni enen fof nden nden nduwoɗen yo allah jaabo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 فلا تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات